Eita! Aí! E ele... waaw gars yi ngi ziar bu baax di leen bah nag di leen jégalu di leen jégalu di jégalu bu baax a Sidi Sidi maa ngi lay affaire dafa dagg live bee dagg dafa quoi live bee dagg xam rek suñu connexion bi mooy loolu mais maa ngi si jégalu bu baax a baax dina wax tamit après mën nga duggaat ci deuxième partie bi rek waaw nga mottali affaire yi ya dagg mën ngaa duggaat ci deuxième partie bi rek may ziar gars yëpp wax dëgg gars yi mën ngeen ngeen ngeen ngeen me me I give me Louis I Nigga done, nigga done, nigga done, nigga done, nigga done, oh bëgg bëgg naa sama jigéen ñaari bi ndongoloo day ngeen ngeen beer dafa wax bu ngeen beer waaw di ziar gars yi baax di wax ne gars yi ku dugg rek na nga partagé waaw maa ngi ziar gars yi baax live bi moo dagg live bee dagg parce que Sidi Faye doon na woote depuis diwaanu Japon mais affaire yi jékki-jékki dagg waxtu bi ni yéen seen émission hommage à Ndongo Lo ma ci hommage Ndongo Lo wax tamit démb la woon 16 janvier ndeysaan fële ca Pikine ñu ànd ceeg fan si waa àdduna ak ñëpp wàccal ko kaamil mais waxtu bi ndongalam sëñ Fallou Mbacke fu mu jëm yalla na fu mu jógee mais waxtu mi gaay ni ne online ñëpp di ku dugg rek na nga partager ku dugg partager ku dugg partager après ma dem jëli ji gaay ñu ñëwaat may ziaré yi ñëpp xam naa tey connexion yi connexion yi moy xawa a na quoi maa ngi ziar ñëpp waxtu bi ndeysaan mëna sama rak sama xarit Fatou Ndongo ñaar bi ci online bi ma nga wax yow moom partager rek yow ñoo ñoo faat mo loolu. ñoo yoroon door daaru xam na moom. waaw maa ngi delloo bëggee magay magay maa ngi lay delloo bëggee bu a baax di wax ni àlasaan nañu ne ci ay réglage nii waaw affaire yi mooy jékki-jékki woon rek daggoon mais ndeysaan ci première partie bi mais garaawul mun nañ eggali mun nañ eggali wax tamit gars yi ku dugg na nga partagé ku dugg na nga partagé ñu def seen laay fan direct hommage à Ndongo Lo ma songolo bëgg naa sama fàtte yi ginnaaw liggéey ba dee waaw waaw def leen nag juma def leen nag ñi seen xol dafa fees ndax maa doom ñoo jaay juddoo dandoo magadoo Amadou Fall góor faale danu danu leer danu

gëmuma feebar te du hôpital loolu du feebar laajal ma lan mooy feebar borom xol bu bon yaay xol bi day dagga xol bi day dagga del sol lu rafet di ko romba du way njotee ba way lu neex ba du way njotee ba way lu neex ñi lay bëggee ìfọ̀gbọ́n. Yẹ́nìdá Awólúwa ìbá ọmọ ìwà ìgbésẹ̀. Yẹ́nìdá Awólúwa ìbá ìgbésẹ̀ ọ̀nyàmìyà ńlá. Ọ̀nàdọ̀ nyànyàmsá. Àzàmà wá sí ẹgbẹ́ olùkàdá. Wá sí bọ́lá kan sọ̀rọ̀ lábẹ́ ìyọ̀kú ọ̀rọ̀ waaw tamit asalaamaaleykum ma leen di ziarat bu baax a baax di wax ni sànq moom suñu live en direct moom moo dagg maa ngi nuyu nag waa Sénégal di I waa àdduna di nuyu tamit àdduna moo dëgg ñëpp waaw di nuyu nag suñu sëriñ sëriñ Dame bi lambaay lambaay deux fois maa ngi the di ko ziar bu baax a baax a Cheikh Diagne naar maa ngi koy ziare di ko nuyu bu baax a baax a baax daal di nuyu nag ahlu Ndongo Lo bi ñëpp bàyyiwuma kenn rawat na nag Cheikh Diagne naar l'ambassadeur Ndongo Lo deux fois ma koy ziare bu baax baax président groupe VIP ñoom sax ñaar famille di nuyu bu baax a baax nag encore une fois waaw ma ngi ñang ñu ngi seetaan ak Fatou Ndongo Lo Ndiaye maa ngi koy ziare bu baax a baax di wax tamit encore une fois tamit maa ngi nuyu Ababacar waaw di ziare ñëpp nag di wax tamit temps yi nii ku ne gis tamit maam Cheikh Niang am na son bu bees bu mu génnee moom sax ñaa génne na son bu bees rendu hommage tamit Ndongo Lo am na solo trop clip bi bientôt disponible chaîne télé yeeg fépp daal waaw may ziar di jëloon gars yi sànq ba tey rek parce que suñu live mooy jékki-jékki dagg mais tamit euh, may wax gars yi bu online bi rek ci live bi nga bokk waaw ni nga bokkee ci man ni nga mën a bokk ci live bi mooy partager képp comme si yaa ngi seetaan nii ci online bi rek. soo duggee partagé na nga partagé partagé partagé affaire dañ fépp parce que tey mun naa wax ne live en direct hommage Ndongo Lo la tey live en direct hommage Ndongo Lo la képp kat képp ko am fi ndeysaan bëgg ngaa bokk ci émission bi tamit mën nga ma oo par numéro téléphone 77 421 39 74 77 421 39 74 wala nga ooma ci par demande vidéo ma jël la demande macha allah connexion bi moo xaw a naqari moo tax day dagg connexion bee naqari ñu maa ngi ziar ñëpp maa ngi bëgg ñëpp wax ni quand c'est important sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo chargé de mission dëggal jubal leeral toujours copier mais jamais jamais jamais du tout égalé wax tamit gars yi online bi rek partagé leen képp ku nekk ci online bi rek partagé leen affaire yi mën a law ñu jàkkaarloo

macha allah gàcce ngalaama nuyu le grand ménagère seeni fay ma koy siyaar bu baax a baax daal di ni quand important sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement yow may seetaan partagé partagé partagé partagé ba ca pale ba jaajëf gars yi miracles, talk about miracles. And I am. And I

mu ne ko bul sonn tey bisu ndongo loola bisu ndongo loola ndongo loo macha allah fi Sénégal moo fi suñu maay tàggat sol fi suñu Bob Marley waaw c'est le centre autrement ñu koy teewal di ko tewal di ko teewal di ko teewal di ko teewal di kon gars yi partagé yeneeni loxo di maraay yeneeni loxo di maraay sama xol bi sori lool marse marse yee mama dégga loolu Ayman mas, gars yi partagé gars yi bu ñu waxtaan partagé leen rek dama bëgg ngeen partagé partagé partagé partagé ñu waxtaan quoi. waa Sidi Faye bu fekkee yaa ngi may dégg tamit mën ngaa dugg ci online bu fekkee yaa may dégg mën ngaa dugg ci online parce que sànq rek noonu laa yem Sidi bi affaire yi teg bu fekkee yaa may dégg rek mën ngaa dugg ci online jaajëf.

waa du changé du changé may wax tamit euh, ku bëgg bokk ci live bi tamit mën nga maa def demande vidéo rek mën nga maa def demande vidéo bu ma defee demande vidéo rek naa la accepté su ma la accepté vraiment ñu waxtaan waaye tamit li gën a gaaw mooy nga wooma ci buumu jokkookaay bi muy 77 421 39 74 xam naa nag ligne bee neexul parce que maa ngi jëlee ci gars yi day dagg ligne bee neexul quoi maa ngi jëlee ci gars yi mais affaire day dagg day dagg day dagg waaw ligne bi neexul maa ngi jëlee ci gars yi day dagg mais nag yéen ñi seetaan pour a neex mën a law dem ca kaw ca ngay génn nga cliquer partage même bu dee benn ami wala ñaari ami sax nga partage leen nga ñu dugal ci biir laay boo partagé rek macha allah macha allah dina gën a yaatu ñëpp mën a ñëw incha allah ku nekk ci online bi tamit boo ma defee vidéo ma accepté la vraiment vraiment tamit ñu jàkkaarloo waxtaan xam naa àlasaan yi nag wax dëgg fa yàlla connexion bi moo neexul connexion bi neexul waaw looloo waral affaire yi vraiment tamit euh, di dagg maa ngi siy jégalu gars yi parce que sànq ndeysaan Sidi Sidi Faye Sidi Faye mi ngi doon wootee depuis Japon ndeysaan bi ma ko accepté ñu waxtaan tuuti ci la parce que xam naa appel bi comme ni may defee direct ni ba pare foo ko encore mu nekk ñaari direct waaw xam nga rek connexion Sénégal bi appel bi dagg maa ngi ziar ñëpp di ziar Diouf Lamba Lamba bi ma taayee di ko wax di ko ziar di ziar Cheikh Diagne Naar l'ambassadeur Ndongo Lo deux fois di ziar eh, Cheikh Mame Cheikh muy Ababacar Mbaye Thiam di ziar maam Cheikh muy seeni fay di ziar waa Pikine ñoom ba ko jaa ñëpp di ziar Sele Pikine sama turandoo di ziar ñëpp bàyyiwuma kenn ken kenn su ma nee Sele nag Sele Kayta laa sama xarit sama seex sama turandoo dëkk Pikine deuxième robinet ma koy ziar bu baax di ziar ahlu ndongolo bi ñëpp démb macha allah fan si ñëpp a teewoon waaw sunu grand Xaadim Jaañ démb ndeysaan mi ngi teew ñàkk ñaan trop parce que ndeysaan démb dégg nga Serigne Medoune Seye borom chaîne télévision boobu mënuñu ko bëgg ndongo mi macha allah macha allah ñu ko wax parce que ndeysaan amoon na temps ji gars yi xawoon découragé ñu def soirée yi après ndongolo dakkal lépp ñu ne bëgguma gis ay mbubaay mu ne ndeysaan mbubaay ñu bëri mbubaay mu ne tax sa warloo booba temps ñu bëri dañoo découragé suñu ndongolo ji wax dëgg fa yàlla bëgg ndongo ñëw ji relève bi booba ba muy tijji chaîne YouTube ci YouTube bi di def bëgg ndongo TV ak Bës Wal kenn gëmu ko woon ñëpp ñu ne booy bi day jaaxal ma tijji ko en 2007 di ci travail di ci travail di live ba tey muy law ba ñëw fii ba tey gis nga macha allah chaîne télévision yu mag sax ku ci am sa bouquet sa di jàll sa fréquence ci TNT bi en même temps da ngay i YouTube tijji fa page parce que da xam ni benn mënu see dem saa moroom ba tey yi gëm ko. ñëpp tey di teewal seen télé ci YouTube bi ba tey gis nga gars yi doo gëm télé bi nag ba pare tamit loolu tamit dajal lu bëree bëri parce que tey dem na ba à la fin tey le seize bi jotee tey ñëppay seen caméra bëgg a def ay témoignage ci Ndongo Lo gis nga tey boo duggee ci YouTube bi macha allah foo tapee Ndongo nga gis ñaata rendre de hommage la ko gars yi rendre hommage rendre hommage yi nga gars bëri na trop trop macha allah ñëpp di témoin am na solo nag wax tamit encore gars yi tamit nañu gën a xool nag wax ji parce que dañuy gis ay artistes pikin yoo xam yàlla baal ay artistes yu woyee woy ba perte lañ dara léegi nag ñu commencé dugg si politique politique bi naan ay affaire de woote genre collectif les artistes pikin lu leen di politique ñoom gis nañ seize ans bu jotee au lieu sax ñu wax ci noonu la rafet mais dañuy gis à chaque fois fu leen invité au lieu ñu wax parce que ñoom daa mel ne amuñu parcours au lieu ñu wax ñom seen bop mais dañuy wax seen bop bu leen invité tak ba lañu nane bismillah sax day ñew no loo waaw ñoom andu andu mu may aw may way ñu lii nangam sangam lolu ngay def ko la may beus no loo yalla yëkëti na turum yàgg na muy man mi muy xalé yu juddogul la ni xalé yu juddoogul ñu ko juddu ku su juddu tamit sa xol bi yalla da koy xar def ci kon yow kon nga gorlu way jéem Sénégal yi xam la parce que ku daan woy noonu Ndongo ba Ndongo Lo def muy def ba dem yoonam bàyyi la fi ba tey nii kenn xamul la duggoo ci xolu Sénégalais yi loolu tamit mënul tax ngay taxaw télé bu ne invité nga taxaw rek di bëggoo Ndongo Lo Ndongo Lo lii Ndongo laa ñu sama booy sama lii sama laa loolu taxul laa eggale fenn te mën nga liggéey te mën nga fexee def sa sa palmarès te mën nga fexee def carrière Ndongo Lo xam nga buzz ak carrière la gars yi di jaawale Ndongo Lo utuwoon bës de Ndongo dafa ñëw uniquement def carrière am dem carrière boobu ba tey moo fi nekk di law mun naa wax ni fii ak mille ans day dem rek mu ànd ci nag ay des grands musiciens rek ku ci mel na Assane Ba ak Ouzin nga xam ne ñooñu fu Ndongo woyee rek dañuy dégg fa mu woyee musique nañ ko ñooñu kenn du rek ñoom musique nañ am dégg que Ndongo Lo daan way ni tey Ousba mu ñëw wayee ko neneen mais ñoom fu Ndongo wayee rek fu Ndongo wayee rek musique yi dañu kenn ñoom waa groupe jàmm mu mel ne tamit Abdou Niang maa ngi online bi après soo ñëwee rek ma jël la yow Abdou Niang Abdou Niang ne maa ngi ko gis ci online bi Abdou aduna bo nekké artiste da ngay fexé def carrière fexé nekk quelqu'un bu ëllëgé ñu lay waxtaan da nag bo fi deful dara nak taxaw fekk fi def dara nga rek ko mbuuba naan sama boy la woon nak man dama naan way diga jox muy aw boko romu na la bu yàgg di dem romb na la parce que tay lesan dem ku ñëw pikine sa yaram dawoon ñëw tay gis lesan lesan ay xale yu ndaw suñu génération ndeysaan ay fans Ndongo Lo bëgg Ndongo Lo trop te mu bàyyi génn jëm kase nga ay caaxaan du pexe du ay politique xale yooyu yëpp ko ci gis day génnee ñaxam génnee ci poosam def ci Ndongo Lo nga ne loolu ay caaxaan lalu ko ay pexe lalu ko leneen lalu ko nga xam ne rek moo ko mën a am c'est le centre autrement te nag damay ziar nag toos ji di mbay faal di ziar ji di ñaar di ziar encore une fois tamit yëri cuun ku ñàkk ñaan la ku ñàkk ñaan la yëri ma koy sori de passage yëli ak ñoom xam kilo ñëpp ak njàmbe njàmbe mu sa giraan maam mbaarama sa ngor macha allah maa koy ziar bu baax a baax a baax démb ndeysaan ñëw na def teew bi ànd ak fan si ndeysaan kenn manqué wul su ma limee damay juum mbaa du ma matal mais ñëpp kenn manqué wul fan si waaw groupe jàmm ba tey ñëpp ñëpp teew nañ nga xam ne loolu ndeysaan Ndongo Lo moo ko mun quoi Ndongo Lo rek moo ko mun waaw di wax tamit vive Ndongo Lo c'est le centre mooy woykatu Pikine bi kooku rek moo tax tey mbëri yeeg ku ne di wax naan lu mu gudd guddi lu mu lënam lënam lu mu lii laa Pikine tey bu demee ba tey gars yi di woote ay 100 pour cent Pikine nag deretu Pikine nag lépp c'est Ndongo Lo qui a causé ça may wax di lancer appel une fois les autorités du Pikine laay lancé appel kenn dof leen kenn la fexe def le tout parce que yéen li ngeen li leen yàlla defal leen kaa war xam un centeur ku yëkkati teru pikin mu RBK pikin mu ci online bi waa Hélène xaar ma jël la et puis ndeysaan gis naa la ngay def lu am solo parce que démb bi ñu pikin di Cheikh soxna maangi gis ndeysaan yaa ngi def live du hommage Ndongo Lo loolu am na solo am na solo torop elen am na solo yow moom xaaral ma ñëw jël nu mu gën a gaawee sama kaam laay sama kaam laay defaraat nii rek parce que instant bii nii xaaral jël soxla elen ñu ndeysaan dem maa ngi gis ñu ngi def live and direct xaaral ma ñëw jël soxna Elen ndeysaan salaamaaleykum waa soxna si maa ngi lay ziar maa ngi damay jégalu nag damaa nekk si yoon moo tax moo tax waaw dëgg la démb maa ngi waaw waaw waaw damay jégalu ndax eh, su ma xalaatoon ne dinaa dugg si caméra ah, ma ma def neneen mais du tere balaa live bi di jeex dinaa mm. egg sama kër ma woote wala ma dugg boo ma bënee dugal nga dugalaat ma ñu wax si Ndongo ñu wax si Pikine ndax mm. tey euh, bu ñu nee Pikine fépp fu waay dégg Pikine Ndongo Lo da cee joué bu am solo ndax te nekkoon na porteur de voix mm. nekkoon na koo xam ne dafa gëm boppam gëm pikin donc man message boobu lay lancé jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk ci banlieue bi gëm leen seen bopp Ndongo Lo na ne dafa gëm boppam ndax dafa départ li euh, ba dara dara Ndongo Lo eh, bu ngeen dégg démb di ko jege eh, rek dëgg la waaw ndeysaan kooku nag Hélène la moom tamit ndeysaan dafa bëgg Ndongo Lo parce que démb rek la preuve lu amul seede baaxul démb ndeysaan biñ defee ay wàccee kaamil nga xam ne démb man maa ngi fa woon ak Ababacar Mbaye Thiam ak waa groupe VIP ñoo xam ne international rek ñoom Habib Cissé ñëpp daal ndeysaan di fa nekk di wàcce ma xam man damay suivre internet bi ci laa duggee Facebook di xool ndeysaan ma gis mu defar benn photo poster di rendre hommage Ndongo Lo moom tamit soxna Hélène RBK Pikine maa ngi koy bu baax a baax ni ko yow moom yaa ngi suñu biir waaw yow moom macha allah te di wax tamit ni ubbil naa la porte yi macha allah loo bëgg def ci Ndongo Lo ji loo bëgg a live ci Ndongo rek ñëwal ma ubbil la porte yeeg lépp loo am yéen ak def ko ak maam Cheikh ñaar rek ubbil naa la porte yi moom waaw sa loxo lay jàpp parce que ñun ñëpp pikin lañ pikin moom ñun ñëpp ñoo far pikin moom ñun ñëpp a far wax dëgg fa yàlla te gis naa la li ngay def naes na rafet na trop soxna Hélène RBK pikin la jaajëfal waaw ba tey tamit ndeysaan ma nekkoon ci waxtaan rek may wax tamit nii Pa Abdou Niang pikin le petit frère de Ndongo rek ci Ndongo tamit maa ngi gis ci online bi ñu ngi seetaan waaw soxna Hélène tamit xam naa tamit waaw nekk ci wa amul problème elen boo àggee gàlle rek nga ooma ñu lo def wa allo koko mam Cheikh Niang wa ma lay ziar dama nek live ni de wala wala wala ma jël nga sànni ay cadre rek wa xar ma jël na xar ma jël na wa ndaysan mu mel ni mam Cheikh Niang ba mu seede baaxul xaaral ma jël ci kaw ok allo maam. waaw sëñ Bëgg Ndongo. maa ngi lay ziar yaa ngi en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV International. waaw lan tamit maa lay ziar ak baax. mu bëgg na nga wax ak waa àdduna ñëpp ngi lay seetaan. waaw xanaa nuyu rek. waaw. di leen sant di leen def seen wàccuwaay. dëgg la dëgg la. waaw ah, surtout yow yelloo nga sant ndax yow ko nit ku foo comme li ñaan bi rek wax la ko moom mm-hmm. fexe maa dëgg ak teg wóor teg sa tànk moo la ko may. dëgg la dëgg la ndeysaan. xanaa di la ñaanal rek ñaanal waa Sénégal baax di leen wax sant nañ leen bu baax gis nañ ñu taxawee ci bis bi. dëgg la ndeysaan ànd ak ñun bis bi ànd ak ñun ñaan tey ba léegi sama téléphone baa nga teg pour waa yi. dëgg la dëgg la. waaw àdduna bépp may woo ngir lëmbaloo. ndeysaan ndeysaan. waa di santaat yàlla bu baax rek. dëgg la. di ko ñaanalaat di wax lépp moom dëgg la dëgg la. lépp ndongo la. loolu am na sànq rek ci ci online bi. Mm-hmm. maa ngi waxtaan ak benn femme bu tudd Hélène RBK Pikine xam naa du ngeen war a xamante sax. waaw waaw waaw. moom ku am yéene ci ndongo loola ku am yéene ci ndongo parce que gis naa dama koy siiwal ci Facebook bi day def ay live yi am solo mi ngi nekk diwaanu Europe. ndeysaan sànq rek lu amul seede baaxul déggoo mi ne mu nekk si Europe di dawal ni ma bu ma bu àggee kër gi daf may oo. ndeysaan ma ne ko yow moom xam naa même boo ma bu ñu jokkoo dinaa xool nu ma lay mettre waaw wax nga dëgg wax nga dëgg. parce waaw Hélène RBK Pikine. waaw waaw Pikine la dëgg RBK dafa bëgg Ndongo Lo. ndeysaan gis naa ko mu def benn poster nii ci le 16 bi après mu doon rendre hommage ci sitam xam moom day def site comme ni muy def lay day live. waaw waaw. mi ngi def benn kii à part de 15 heures bi ci la doon def live am delloo ñu ko Ndongo Lo. naa ku dugg YouTube bi rek di nga gis affaire man boo duggee bi sama yaram day daw parce que damay gis yeneen sites yu bëri allah mën nañ ay dix sites xanaa daal lenn daal benn message laa ci lancé. Mhm. kese boo si moom rafetlu ma ko moom daf ma xaw a metti muy li ma xaw a metti muy xabru ndongolo bi ni ko gars yi jëlee di ko monté def ko genre seen bañeeru vidéo pour jaay seen vidéo. Ah, loolu daal laa xam ne moom laa wax gars yi bu ñu ko mënee moytu comme jël xabru bi nii def ko genre bannière quoi pour jaay ko pour ko xoolee rek gis ko lu danger teg ko dugg foofu pour xool vidéo mais Rado Omas mom lepp rafet na trop trop ñep ñep ñep parce que Sénégal mom dañoo gëna fédlu wat ni. ki mo suñu way kat ki lañu bëgg. Ah, waaw té nak ndongolo comme ni ma ko waxee sama live rek néna ndongolo Ndongo Lo doxalu woon ay genre waykatu buzz dafa ñëw def carrière. dëgg la dëgg la waaw da ñëw rek def carrière xama nga carrière mooy lépp. Mm-hmm. waaw tép tép mo gënu a yore moo yow tamit dama lay wax sa andam bu lu yakam dara yow dal fi nga japp gën fa japp tamit gëna gëna ki dal gëna waaw gëna a taxaw waaw yàlla baax na dina baax incha allah. nekk Baye Fall maa gën a taxaw nag def carrière. amul benn problème bees bi xam naa sama deuxième live ma defaat dimanche bi prochain bi naa ko teg muy sa sa son bees bi nga génnee. amul benn problème def loolu. waaw rend hommage Ndongo Lo bi bi nga génnee noonu n'est-ce pas yóbbu ko ci rajo ci kii ci ci chaîne télé yi. waaw waaw waaw. léegi sa dernier sa dernier mot. waaw xanaa di sant rek ñaala sama ñaari waajur kon te di ak ñu dige ak moom ndongo sama doom maa mareeto ak képp kuñ fa fekk ak képp ku leen fa fekk di sant ak sénégalais yëpp di sant sama groupe ak yaa ci maam yow yaa ngi ko gën a xam liggéey bu rafet lay liggéey. dëgg la gaa yi dañuy liggéey dëgg la. alaaj sax tey daa waroon dugg si laaj bi mais mais nee na ma day liggéey nii daa waroon dugg dama ko jël si laaj sax. ndeysaan wax nga dëgg wax ma day day liggéey nii xam naa ñu amal jàmm rek. jaajëf kontaan nañu jaajëf. après su ma ok ok jaajëf maam. waaw ndeysaan mu nekkoon tamit euh, le petit frère de Ndongo Lo amul seen rek baaxul mu nekkoon le petit frère de Ndongo Lo maam Cheikh Niang ndeysaan moo doon oonoon téléphone depuis Pikine doxalee ak xam naa après boo àggee kër ga rek nga ay ndongo noonu ini kon ini yi nii na rek na iya, rek seen live and rep ndeysaan du sax waaw gars yi nii na rek waaw ndeysaan mu mel tamit jii di rek ndeysaan jii di mbay fall waaye jii di mbay fall maa lay siyaar yow ya, moom kenn du yow ya. wax dëgg fi yàlla démb yaa ya, ngi def teew bi yaa def teew bi macha allah ànd ak yëri cuun waaw ndeysaan ñëw def teew bi yow moom mention spéciale à toi comme ni la ko maam Cheikh nyaaw waxee dimbali laa la ko waxee encore une fois yow mom sa suñu julé dañ lay ñaanal jiri mbay fall ci kaw wa di lay ñaanal bu baaxa baax muccu muccu muccu yow mi ndessane gis nañ lu rëy li nga def muy ce nouveau single bi nga def nonu nga am tamit ndessane warna genn à bientôt pour la script bi jiri mbay fall bu Ndongo nek danseur international de Ndongo parce que ndessane fu Ndongo ba tourner c'est pas danseur danseur bu si Sénégal rek ah. danseur la bu si bu dooma daan voyagé day bokkaat ci groupe bi voyagé muy Amérique Atlanta Washington Cincinnati fu ne waaw jii di may fal doon dem ñu ngi may siibu ñu ngi ci online yi comme fi maam Cheikh ñaa jaar rek mën ngeen fa jaar képp koo koo xam tamit pesan comme tey ligne bi daa metti trop trop trop ak tamit jokkoo bi metti trop cent vingt 77 421 39 74 boo ñu oowee rek ñu jël la waaw soit que ñu jëlee ci suuf wala ñu jëlee ci kaw waaw si tu es d'accord ñu jëlee ci kaw comme ñu jëlee ñu jëlee maam Cheikh ñu jëlee ci kaw rek après nga participer bokk suñu émission waaw seen émission nag Ndongo ay tey dañoo ñëw rek def émission rend hommage Ndongo mu Serigne Fallou Mbacké waaw 16 ans déjà demb nag la woon le 16 bi macha allah ñu nekkoon Pikine tamit defal ko ay wacce kam rek ak fan si yeeg ñi ko bëgg ñëpp dégg ngeen ndeysaan noonu maam Cheikh ñaan Niang ne ndax tamit ndeysaan maam Cheikh ñaan neena na képp ku fa teewoon démb ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax moom tamit ndeysaan ñu koy ñaanal rek mucc ak gudd fan ak tamit li ndoomal loo néewatoon sabab lu ko maam Cheikh ñaan ñu rek eggal ko nag may lancé tamit appel encore une fois képp koo tamit amoon nga yéene ci ndongalu di wax ay su ma fekkoon ndongalu lii su ma fekkoon ndongalu laa dama ni le petit fada de ndongalu mu muy maam Cheikh ñaan doon suñu Ndongo Lo comme ñu leneen parce que dama naan ay fan si Ndongo Lo <laughs> dañoo dëgër bopp parce que dëgër bopp mënul passé li fi Ndongo Lo jógee léegi mat na 16 ans boobaa léegi fan si Ndongo Lo yi amul waykat bu ñu gisul da gis waykat day ñëw man xarit Ndongo Lo xam ne la ay baat ak noonu di comprendre nga mais gars yi ni Ndongo Lo rek gars yi kenn Michael Jackson góndiwu leen gaa yi donguloo rek kese la ñu dégg donguloo rek loolu doyatul xale yu mujjee judd derrière derrière derrière ñoom ñëw seen xol bi yàlla xar ko def ci donguloo rek loolu nag yàlla la comme ni mu ko waxee woon comme ni mu loolu yàlla la yàlla parce que di bëgg nit xam nga sax artiste am na mais artiste ak génération génération bëgg ko Pikine non autorité Pikine yi su may daaneel rek mooy comme ñoom dañu may suivre su may daaneel nag mooy ñoom Pikine bu demee ba daan guddi guddi Pikine ak 100 pour cent Pikine ak ay dérët Pikine loolu comprendre autorité Pikine lenn kese kese kese kese la ñu am pour delloo ko ñu ko ndongolo muy ñu fexe ba Pikine ñu fexe faa def un monument wala symbolique boo xam si day symboliser ndongolo mais loolu ba tey gis ñu ko Pikine Pikine nag dañ gore nag bari bëre sax waaw dan pigin pigin bañ bu demee ba xam pigin ba ñu wax pigin c'est grâce à ndongolo ndongolo mo tax kon nak wax dëgg pigin ni dañu delo njubal ndongolo dañ ko fexee créer un symbole ku dugg pigin xam ah fi kat ki moy borom pigin parce que tay bu fi jógee ba tay artiste bu ne def na lu ne artiste bu ne yuuxu na lu ne waaye kenn du ci kenn du ci borom pigin Ndongo Lo mooy borom bi Ndongo fi nekk tey moo fi nekk suba moo fi nekk ginnaaw suba moo fi nekk taw loolu yàlla la mu ne ko nag tey ndeysaan ñu ngi ñëwoon def def leen seen émission rend hommage Ndongo Lo tey nag nekk le 17 janvier Ndongo Lo ndeysaan bàyyi ko le online bi après bu ñëwee ñu jël ko wax bir gars yi képp ku bëgg a dugg si online bi 39 74 ma jël la en direct wala tamit nga def ma demande vidéo rek waaw ma jël la xam naa LNRBK Pikine su àggee këram dina ma oo jàkkaarloo may ziar ñëpp ma wax ne gars yi yéen ñu seetaan tamit na ngeen partagé yéen ñu seetaan partagé leen partagé partagé partagé partagé ba ca biir fale ma may ziar ñëpp may ziar tamit encore une fois grand Sidi Faye Sidi Faye mi ma doon woowee nekk tamit doomu ndeyu Ndongo Lo xam ne ndeysaan yaayam ak yaayu Ndongo Lo ñoo bokk ndey ak baay ba ndeysaan baax a baax kon gars yi ba jox leen ambiance après dem jóg deux secondes ma jóg Thank you. Thank you.

waaw kontaan naa may ñaan yàlla ñu yegg ak jàmm naa dina neex dina xumb dina am ak xewal dinañ am mucc dañ ñu bisee jàmm bu soobee yàlla ñu ci doon sëñ Fallou Mbacké. fi nekk ngi ni ngi ci biir bi South Africa bi di waaj a départ Dakar New York direct daf ñu fenn escale. incha allah. suba mooy gars yi am na def ñuy def. waaw mooy ñooy day sens xet bi mooy affaire yooyu avant foog bi nga xam ne rek ñun bi bu liggéey nag jomb ñu sëñ bi moom di ko sant nag sëñ Saliou yàlla na fi yàgg tamit. amiin yaa rabbal aalamiin ku xam ne du tey yàgg na lool wax dëgg yàlla. nekk daal avion bi def na huit heures ci kaw ba neuf heures ba neuf bi daal di dugg nekkate jub rek ñun war nekk nag ci solo. fi nga xamante ni mooy New York TV New York City yàlla leen muy Thank you. bàyyeeg wala ci digg dëkk bi lay wàcc saa jili bàyyi woon na ma wala jili bàyyi avion bi ci digg dëkk bi lay wàcc waaw kalos suñu sëntu laa bëgg a tax mais avion li ngeen dégg ne nag mooy tur na Ndongo woon euh, Amérique ndax ne ndeysaan Ndongo Lo mu ànd ceeg waamu jàmm ànd ceeg ménagère am jiiri ñaar ànd ceeg seexu yàlla yi muy asan ak Ousseynou ànd ceeg ndeysaan ay waa groupe am waaw ndeysaan jël ko lu yéeme yéeme nga yàgg dëgg la lu yàgg dëgg la suñu centre moom wax dëgg fa yàlla lenn a a dem yàlla yi ñu jël ci moom bu baax a baax a baax aw jooju aw dem ñu jël bu baax a baax a baax siyaare ñëpp waaw ñun tamit ndeysaan ñu nekk ci online bi rek ku ñëw mu jël ko xam naa xaaral ma tëj ci ligne bi. waaw jërëjëf mbokk yi wàcc nañ ci poste New York parti yàlla waxtu ci gàttal wàcc nañ avion bi nekk ci 4-4 doy waar macha allah di dem. waaw waxtu bi ñu yële seen émission commence à Ndiobodo le 16 janvier 2021 tey nag ñu ñëwoon ne sax seen chaîne YouTube Ndongo Lo TV ak la chaîne télévisée autrement Ndongo Lo ñëwoon nañ def rendre hommage à Ndongo Lo Serigne Fallou Mbacké tey nag nekk le 17 kenn di ko defee fii ci chaîne chaîne bu Ndongo Lo. maam sax yaa doon woote frère de Ndogolu témoin ma koy bëgg baax baax bëgg El Hadj Yaya Diar ambassadeur Ndogolu deux fois encore bu fois rek ñu ñuy suivre rek ñu ñuy suivre ñu leen ziar waaw sans oublier nag Serigne Dame Diouf laba laba bi bëgg baax baax grand yéen ñàkk ñàkk Baye Mbacke Mbaye waaw Baye Mbacke Mbaye moom dama naan bëgg Ndongo TV international bay seetaan loolu fa la abonné wu wax mi ne gars yi simul leen seen bu man sama seen sama seen man dama baax rek ndeysaan ñàkk a mën a toog di ci jéem di def mais seen bi a ko bokk fi ma toog muy def ku nekk tamit fa nga nekk boo soxlaa kon naan bi ma jox la parce que sama page Facebook ñoom créé naa benn page bu ko Staf Bëgg Ndongo foofu képp ku taxaw ku bëgg a def laay fan rek fa nga nek mën ngaa teg say photos say bagages def live wala soo paree boo posté ma jël ko tamit def ci chaîne parce que ñoo ko bokk seen seen la suñu seen la waaw si nga mën a dama am yéene bi nii rek dëgg bu baax a baax tamit grand Khadim waaw may wax tamit encore une fois la la rek ndeysaan xarit Diagne ñàkki ñaan démb dafa ma booleeg si mbirum sëy buñ ko bëgg ndongo mi dafa soxla ay jumtukaay pour keneen bi mu keneen ndongo loo muy chaîne YouTube bëgg ndongo TV ak comprendre nga ma ko man nag wax dëgg fa yàlla bu ordinateur yor naa léeg-léeg lépp waaye nag à l'instant nii ku ne xam na xeetu jumtukaay yu bees yu façon waaye man haute qualité définition laa bëgg haute qualité définition lu leer parce que chaîne bi c'est télévision autrement dem na mu am ay bagages yu loxo ñëw moo tax comme ba tey yaakaar naa ko si biir caméra man nag instant bii képp ku taxaw. di jàpp ci chaîne bi wala képp ku taxaw pour bëgg chaîne bi di gën a yokk di couvrir ñaar war na leen ragal muy caméra bu high level ak benn appareil photo ak numéro jàpp loolu moom su ma ko yoree dinaa moom fu juru ndongal wax xew wala fu maam sax ñaar dem ay soir wala dara ma taxaw sam sama caméra jël ko ay quelques extraits laajee introsé ma introsé comprendre soo paree boole yooyu def sama machine bi ma yor nii montage parce que li gars def nii yëpp ci chaîne YouTube bi macha allah mu fi waaw montage bande annonce bande scénario yooyu yëpp dañ def ndeysaan bare poste mais sëñ Fallou instant bi nag comme ni ko rek nee na tepp tepp moo ko nuyu rek instant bi ñu dara ay caméra yooyu yëpp ay deuxième heure lépp dina ñëw si kàttan yàlla waaw xëy na nag métti na ñu tijji chaîne YouTube waaw seen fuñ ci dërëm fuñ ci dërëm boobaag léegi 2007 ba tey waaye tamit dañ ci dem ak suñu bonne volonté ak suñu bëgg-bëgg ba tey chaîne YouTube bi enjoy ñëpp di ko seetaan waaw sant yàlla wax nga ni gars yi ci émission bi rek boo ñu woowee ci 77 421 39 74 daañu la jël ca kaw ñoom wala tamit nga def demande vidéo rek saa digg naa leen boo ma demandé vidéo rek dinaa la accepté jël la jàkkaarloo waxtaan macha allah ñu bokk ci émission bi xam naa nag ba Abdou Niang caat maa ngi ko waroon tegee rek ñu ci live bi rek macha allah macha allah mën nañu demandé vidéo jël ko waxtaan. siyaar ñëpp. gaa yi Malick boo ñëwee rek ngeen jël Malick Ndaw mais wax tamit ñi seetaan nañu partagé rek parce que émission seen émission la partagé leen rek partagé leen partagé leen partagé leen affaire bi ndaw partagé leen rek partagé leen partagé rek mu wër parce que chaîne télévision bi ndeysaan seen seen télévision la waaw ñu nekk ay bonne volonté ci ko rek chaîne télévision Vallahi seni geristala seni. Sor to to. Tasbih. Yo gerista foo féete. Waaw mene gerista la yaa ngi ci kaw suuf foo féete. Gerista moom lay quatorze ans wala chaîne télévision bi am na quatorze ans nga xam ne loolu dèjà mu mel ne RN bi may woo mel ne RN di wa RN RN après boo possible boo paree rek bo ootee ma jël la boo àggee kër ga boo ootee ma jël yow sama jàkkaarloo ak yow day am solo parce que loolu disponible rek après nga oo ma jël ñu jàkkaarloo bu baax baax baax baax wax ni gars yi ñu seetaan tamit waaw ni ngeen partagé rek yéen ñu seetaan rek partagé leen partagé partagé mu wala ñëpp mën a am lien bi seetaan ko wax tamit ne après suñu laay fan rek su daanalee rek man ngeen dem ca youtube ba ngeen dugg bëgg ndongo tv international ngeen duggee foofu rek macha allah macha allah tamit ngeen amaat vidéo bi intégralité ngeen mën koo seetaan lépp waaw ngeen duggee foofu rek ngeen ko amaat ngeen seetaan yëpp di chaîne YouTube Boubacar Ndongo TV international fi nga xamante ni bu ñu live en direct fii nii rek ci Facebook bi bu ñu paree rek fële lay dem chaîne YouTube Boubacar Ndongo TV international fa lañ koy dugal fa lañ koy reprendre xam naa après dem képp mooy seen télévision bi mën ngaa dugg foofu mel na soxna Nabou chaîne YouTube Bëgg Ndongo TV international di benn soxna Aram Faye ndeysaan macha allah loolu fa la koy kal di bëgg ñëpp nag waaw di wax tamit suñu première stéréo live ak mu leen tijjee foofu noonu ndeysaan tamit euh, Sidi Faye duggoon na waaw Sidi Faye rek di témoin di seede am na solo trop waaw xam naa bi moo xawoon am problème ba tax na affaire yi jékki-jékki dagg te xam naa Sidi Faye tamit su ma nee ñëwaat rek ci kanam a kanam dañuy ñëw tëj émission bi. xam naa beneen RPK tuuti moom la ñuy xaarati waaw bu ñëwee rek après ñu jël ko bu ñëwee rek ñu jël ko waxtu bi ñuy quand c'est important sur la ah, chaîne télévision Ndongo TV and also la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo c'est ça on est ah, l'ambassadeur daa mel ne mooy l'ambassadeur Ndongo Lo Cheikh Dakar yesir ah, l'ambassadeur mooy oote

nga oote rek mu jël la mu mel tamit ambassadeur mooy oote ambassadeur ndongo lo ndeysaan sojay naar ñu leen jël ko waaw sojay naar ini. Ini rëcc na ñu

ne sànq waaw gis nga de Sidi waaw man man ay jégalu nag wax tamit sànq affaire bi dafa rek dagg waaw mën na ci jégalu parce que ndeysaan connexion yi mooy am problème mooy dafa ne mooy fële ñaar waaw ndeysaan man tamit maa ngi seen mu maa ngi seen Sidi Faye ci online bi seen encore une fois bi changé naa ci online bi waaw xaaral ma ñëw jërëjëf. waaw son bi nag ndeysaan dama koy may jiri jiriñaa laa koy may son bi ma bëgg teg nii jiriñaa laa koy may di ko wax mention spéciale bi ndeysaan dégg nga lu ne gis nga lu ne ndeysaan mais dina wax tamit jàpp bindoo la moom noonu la bindoo la moom boo ci nekkee bindoo la naan wedd du ragal sa sa la ki mun yàq day wax lu ñaw boo leen dee déglu dem comprendre nga man mii sax di wax ak yow nii parce que Fallou chaque jour nga gis benn jaaxle wala ko am si xamul dara wala une personne mal intentionnée nga dégg mu ne non mais bëgg ndongo laa fi muy def nii ak euh, bi mu nekk nii YouTube day laa laa laa wax dara suñu dara fayeeku ñu waaye bëgg-bëgg parce que man maa nekk comme si ndeysaan maa sentir li noonu la doy maa dégg li noonu la doy ma bëgg nag ni ma ko sentir ni ma déggee fi ñeneen tamit dañ kaa sant loolu déggee la force. maanaam xam nga boo bëggee dara rek nit à chaque fois tamit da ngay wër ku la ko bëgg waaw mbir mi noonu la quoi noonu la moo tax boo gisee tamit ma ne si laaj bi ma xaati online bi ambassadeur boo la. waaw mu ni ko bul sonn jiriñaa jiriñaa yaa moom jiriñaa jiriñaa yaa moom waaw ambassadeur waaw ambassadeur ziar mi ngi leer mi ngi leer yaa ngi dégg bu baax a baax deux fois. leer na ah? deux fois. naññi naññi naññi. Ah, ah kon baax na deux fois. waaw loolu baax na. dëgg la yow. waaw euh, naa la. maa la raw ah. ma ne mu mel ne président. ça va groupe VIP Mame Sagna. waaw loolu la gars yi wax de. <laughs> loolu moo am sax léegi démb démb démb noo gisee affaire yi ak euh, ndeysaan organisation bu gars def wàccee kaamil yi ñaanal waa ji ànd ci ak maam si àlla macha allah macha allah loolu rafet na loolu yàgg nañ ko def yàgg nañ ko def macha allah yal na yàlla dinu ko man loo ñu yàgg fi lool di ko def waaw te lépp lu ñu ñaan mu yegg si Ndongo Lo waaw moom ak ay wayjuram ak doomam mbay ah Badiane Ndeye Dieng ah ndeysaan euh, bébé Maritou ak mbokk yi fa ñu fa fekk ñu leen fa fekk ñëpp waaw ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo doon ñaan ñëpp aussi ñu ngi leen ñaanal yàlla mu mu mu nangu ñaan yi te mu fay leen ko ay yiw waaw seen tànku ñëw ak dem yëpp incha allah yal na leen yàlla fay mu nekk yiw waaw ñoo ngi nekkoon fii bëggoon nañ ñëw comme ni daan ñëwee at bu nekk waaye ren euh, corona bi ak euh, yeneen yeneen yeneen ak yeneen moo tax euh, sunu ñëw mënul woon yomba waaw ñu préféré rek euh, xam ni toog rek xam ni moom mbir mi moom ñaan rek la waaw du leneen ñaan rek la waaw seulement que man ma namoon waa waa groupe bi rek nam gaañ ñi mais ñaan bi moom foo nekk mën nga ñaan mais loolu moom gënoon tax bëgg a ñëw gisante gaañ ñi waa fans yi ak am na ñu bëri ñoo xam ne dama yàgg déggante ak ñoom te gisante guñu ma ne woon ñëw bi day tax ma mën a gisante ak ñoom mais nag ñaan bi moom foo toll mën nga ñaan waaw di di di di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ñaan euh, ak fu ñu mënti nekk. képp ku ñaanoon pour Ndongo Lo képp ku jël sa kurus ñaan wala nga ñaan loo mën a def ak yéene boo mën a am si Ndongo rek waaw lépp lépp yal na ko yàlla nangu waaw mu mu fekki Ndongo Lo fu mu nekk moom ak ay waajuram ak uh, doomam mbay ba bàjjanam nday jeng uh, ak bébé maritu doomu mam Cheikh ak mbok yëpp ak ñëpp képp koo am koo xam ne am nga fa mbokk rek yal na ñaan bi aussi jëriñ la aussi ñi nga xam ne yoroon ñaan yëpp aussi comme ni ko waxee léegi rek uh, mu mu nekk aussi loo xam ni yàlla def leen si fay waaw kontaan naa si initiative bi aussi si euh, ren am na benn benn euh, lu bees loo xam ni am na si moo di lu ñu yàgg bëgg mooy fan si daje ñëpp benn place di defandoo mbir mi waaw loolu lu am solo la yokkute la avancement la ndax Ndongo Lo dafay dajale bi muy dund dafay dajale bi mu fi jógee ba léegi mi ngi dajale képp ku bëgg a xaajale yow yaay sonn tôt ou tard yaay sonn rek mais mbiru Ndongo moom àndul ak xaaj amul àndul ak xaajaloo waaw booloo rek la àndal di ñaan ñëpp rek ñu booloo ndax loolu mooy tax Ndongo Lo fu mu nekk mu kontaan si ñun aussi yàlla kontaan si ñun parce que Ndongo Lo ñëpp xam ne ni tànneef la si tànneefu yàlla yi donc euh, bu ñu defee li mu bëgg rek waaw loolu day nekk li nga xam ne day day day day tolloog day day juboo ak li yàlla bëgg maanaam Ndongo Lo li mu fi doon si àdduna bi Euh, dafa mel na ku ku yàlla yónni woon rek pour pour pour nit ñi mag ndaw du xale yi du mag ñëpp la ñëpp la doon jëriñ ndax mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp ko mën a déglu ndax lim naan wax boo dindee te musique bi tekk ne la nga déglu kàddu yi rek mag ak ndaw ñëpp ka daan déglu te ñëpp si taan defaru waaw ñëpp si daan defaru say kàddu ba tey ñu ngi si defaru génération bu ñëw rek nga yaakaar ne ñi ñoo la gën a bëgg ndongoloo te loolu macha allah war na tax ñu am xel bu dal si moom te di ñaan rek cat cat bañ ko jiitu foofu Euh, cat bañ ko fo fekk macha allah loolu rek lañ koy ñaanal waaw Ndongo Lo euh, Ndongo Lo àdduna yëpp la waaw waa këram nag ñoon ñoo si ëppale waaye nag euh, Ndongo Lo léegi international la waaw xam ne nii métti na lool métti na lool surtout si njabootam waaw mais nag fi laay rek di lancer appel ak message di lancer message boo xam ni mu ngi koy maa ngi koy adressé képp kuy fan su Ndongo Lo te nga koy parce que waaw képp kuy wuyoo fan su Ndongo ak foo mënti nekk si àdduna nga ne fan si Ndongo Lo ngay wuyoo maa ngi lay xamal ni fan si Ndongo Lo yemul rek si làmmiñ waaw warul yem rek si làmmiñ ndax Ndongo weesu na foofu waaw bu dee xam Ndongo Lo euh, li ñu waroon xam si moom presque mën nañu wax ni xam nañu lépp donc euh, am na leneen lu des loo xam ni beneen mission la boo xam ni moom la ñu toll temps yi waaw bu njëkk mën nañu wax ni boobu nit ñi xamaguñu woon Ndongo Lo dañu ko daan dégg ay woyam nii rek mais interview yi nga dégg at bu nekk interview yi ñëw at bu nekk nga dégg ko wax ko mësul gis at bu nekk nga dégg ñi daan wax di waxaat li daan wax rek la ñuy waxaat ku waxoon daaw ren la nga waxoon ngay waxaat wala yenn saa yi nga fàttaliku lu bees si li nga fàtte woon nga waxaat ko boo boolee lépp lépp lépp li ñuy wax si Ndongo bi mu bi mu fi jógee léegi presque wax yi benn la ñëpp kàddu gi benn la donc léegi mën nañu wax ne Ndongo léegi ñëpp nangu nañu ni Ndongo Lo champion donc Ndongo Lo xam nañu kan la xam nañu li muy jariñ xam nañu fu mu féete ku ñëw rek am na ñoo xam ne kenn déggagu leen ñu wax at yi di ñëw si kanam di nga dégg ñu bees ñoo xam ne mosoo mosoo leen gis si caméra mosoo leen gis télé ñuy wax te ñooñu li ñuy xam xëy na ñuy wax ñëpp xamuñu ko donc euh, ni géej la rek tey da ngay gis ku wax si moom ba nga yaakaar ni pare xam nga lépp si moom su nga la wax leneen lu bokkul ak la kele waxoon te lépp dëgg lay doon ndax ñooñu dund ak moom dara lu bokkul ak li seen morom dund ak moom donc euh, mën nañu wax ni loolu bu ñu toppee rek bëgg xam Ndongo Lo rek fi fii ba àdduna tukki duñ ko mën a xam cent pour cent mais lañu si war a waaw. a a ma toog leneen naa la ak président naa fu ma toll woon sax ma ne waaw maa ngi nekkoon si waaw xam Ndongo Lo waaw si fan si laa wax ñi nga xam ne dañuy topp rek pour xam Ndongo Lo ma ne Ndongo fii ba àdduna tukki duñ ko xam 100 pour cent nañ jël essentiel bi rek mooy Ndongo Lo la woon tànneef la bu yàlla wàcce woon. Euh, def si moom li mu def si moom ñu siy jariñu di si root fii ba ba ñuy dee dañ siy jariñu donc nañu xam ne loolu dañ koy liggéey en parallèle di di gëstu ndongoloo en parallèle mais nañ ko booleek leneen gëstu ndongoloo rek bul si yem même boo ko gëstoo aussi na nga ko jariñoo li nga jàng si moom si jikko bu rafet wala nga jàng si moom si comportement wala si mbaax si yiw si coloré jikko yu baax yëpp yi nga xam ne moom la ndongoloo àndal ah, lamboo ak moom yow boo ko boo booy gëstu si ndongoloo gëstu ko rek naa pour xam ko rek yem fa mais boo ko gëstoo ba jàng si moom jikko bu bees xanaa di nga xool yow sa jikko fekkee bii moo gën nga jël jikko ndongolo boobu nga jikko woo ko nga roy ko ndax nga mën a am jikko boobu waaye xanaa doo ko gëstu rek pour ni nettali ni ndongolo ni la meloon ni la ndongolo ndongolo ni la mais yow jéem a roy si moom jéem a roy si moom loolu moo am njëriñ naan fan si la wax foo foo ñu ne cam nga ne fan si ndongolo la yàq deru ndongolo te mënoo yàq deru ndongolo lépp dafa rafet macha allah donc képp kuy mbubu fan si ndongolo danga nga war a am jikko ndongolo fi ñu la gis gis yow Ndongo Lo fi ñu la sentir sentir si yow Ndongo xam ne kii kenn ku ko gis même bu waxul la waxul xam naa Ndongo sax war nga xam ne kii euh, na lu mu jël si Ndongo Lo war nga xam ne kii euh, au moins yow sa xel war sa xel war na jox ne kii est-ce que du fan si Ndongo parce que jëfinam comme jëfina Ndongo parce que da war jël si moom dara fekkee li muy def neex na la fekkee Ndongo dafa neex dëgg-dëgg yow jikko yow fekkee dafa fekkee jikko mi ngi si yow jikko yaa si yow bu dee nekkuloo si ko roy nga am ko ndax yow nga euh, nga espérer am li mu am waaw loolu loolu moo am sens si gëstu Ndongo Lo mais gëstu Ndongo Lo pour gëstu ko rek euh, pour man amul sens gëstu ko pour jëriñoo ko mu am sens donc mais loolu en parallèle benn benn branche la deuxième branche bi nga xam ni moom mooy xew léegi te moom lañ toll te ku si nekkul nekkoo si dara moo di maam Cheikh fi nekk maam Cheikh moo war a eggale mission Ndongo Lo képp ku ni fan si Ndongo Lo laa te ñëw loo jàppale si maam Cheikh pour man sa mbëgg dafa des waaw ndax Ndongo du ñëpp ñoo ko bëggoon bi mu fiy dund ñëpp bëgguñu ko woon am na ñu ko bëggul woon Ndongo Lo bi muy dund am na ñu ko bëggul woon ñi ngi fi nekkoon xëy na ñooñu na ñu ngi dund ba tey am na ñoo xam ne nekkatuñ fi mais Ndongo Lo wooy na ko bi mu fanse yi di yooyu ñooñu ñooñu fu ñu dëkk dëkkuñu Japon Sénégal lañu dëkk Afrique lañu dëkk ñooñu xëy na ñu ngi dund ba tey am na ñoo xam ne dee nañu xëy na mais léegi ñëpp ñu ànd réerandoo ma réerandoo bi doo xam ko bëggoon ko bañoon ñëpp a jaxasoo doo xam kan moo bëggoon Ndongo Lo ak ku bañoon mais léegi boo bëggee xam kan moo bëgg Ndongo Lo dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ni dañu am kóllëre ak Ndongo Lo kóllëre gi mooy lan mooy li Ndongo bëggoon nga bëgg ko li Ndongo Lo bañoon nga bëgg ko te Ndongo Lo famille famille am la nga doon bëgg donc jàppale ko si famille am a woy nañ ko ku ne bëgg naa Ndongo Lo te defoo loolu man sa dafa des wala da nga bokk si ñi ko bañoon ba leen woy man loolu laa gis képp koo xam ne noonu am nga woon bañoon Ndongo Lo ba tey nga taxaw naan loolu Ndongo Lo waliyu la te yow oh, bi mu fi dund bañoo nga bañoon ko ba nangul def ci way fent ci way woyti woyti woyti woy si woyti si ndax 2003 2004 ñëpp dégg nañ lu ñaaw lay tek ci deru ndongoloo te ñi ko tegoon si deram ñi ay japonais duñu ay chinois ñooñu fan lañu dëkk donc ñooñu xëy na ñu ngi dund xëy na dee nañu mais en tout cas li si wóor moo di euh, fi ñu toll nii mën nañu continuer di gëstu ndongoloo duñ ko mas a xam ndongoloo duñ ko mas a xam dañ si dañ si xam tey dara su bu ñu xamaat si leneen fii ba ba ñuy dee duñu xam ndongoloo mooy kan ndongoloo yàlla moon ko indi indiloon mu def si moom loo xam ne ñun mënuñu ko jeexal donc euh, dañ ko boole ak jàppale maam Cheikh si li mu nekk waaw di te di nemmeeku waa këram ndax nongolo ku bëggoon famille am la bëggoon ay xaritam bëggoon ay nitu démbam képp ku bëgg a war nga bëggale nongolo ay xaritam bëggale ko ay nitam bëggale ko famille am jàppaleel ko ay njabootam doomam ak waa këram nga leen di seeti waaw ñu la nga jël xaalis jox leen mais nga leen di nemmeeku ji ba ñu xam ne kii boole na boole na boppam si nongolo waaw loolu moom si am solo mais bu ku ñu ne dama seeti waa këram da yaakaar dañ la wax jëlal xaalis nga jox nga dem seeti waa këram ndax da bëgg te Ndongo lu mu bëgg da nga ko war a bëgg am ku bëgg Ndongo Lo war nga bëgg famille Ndongo Lo donc fa bëgg famille Ndongo Lo mooy nga nemmeeku ji famille am di di di leen seeti di leen ziyaare ji di leen xamal dara maam di eggale mission wu Ndongo Lo dañ jàppale si liggéey bi maam Cheikh xale bu ndaw la commencé aar bi ba mu commencé yàggul donc war na am ñu ko gunge jàppale ko si mu dem loolu bokk na si bëgg Ndongo bëgg Ndongo Lo ñëw eggale mission wu Ndongo Lo rakk moo ko eggale muy maam Cheikh Ñang ak Matar Ñang ñoom ñaar ñoom ñaar fi nekk nga jàppale leen ñu eggale mission bi loolu fi nekk ma Matara fi nekk ak maam Cheikh ku leen jàppale nongu bëgg nga nonguloo ndax yaa ngi motali jàppale nonguloo si mission bi donc Matara ñang ak maam Cheikh ñang ñoo fi nekk si kër nonguloo di way képp ku bëgg a nonguloo ñëwal jàppale Matar ñëwal jàppale maam Cheikh loolu mooy dëgg keneen ku wax leneen wax wax nga lu neex waaw loolu nag parenthèse boo xam ne sa mën ma ko woon bañ a wax parce que loolu loolu euh, dafa jot dafa jot dafa jot nañu continuer di gëstu nañu continuer di gëstu nonguloo mais eggale sunu kóllëre ak nongolo nongolo bu mu na gën a gore nongolo dafa dee dafa woy ba dee ndax ñun woy na ko woyete ko ni danaa woy ba dee ngir fans yi waaw woy na ba dee ngir ñun ñun nag ñoo fi des dund war nañu liggéey ba dee ba fekk ko di ko jàppale di ko di ko di garder ko ba dee fekk ko ndax léegi ñu dee fekk ko dee bi sorewul ndax nit mënta fa dund téeméeri at sunu dee soretul ñu fi nekk ñu kenn fi dund si lu ëpp 30 léegi xëy na si kanam wala 40 ans le maximum ñun ñu xëy na des tuñu 20 ans donc dee fekki ko donc euh, nañu liggéey lu rafet fekk ko ba ëllëg moom bu ñu dajee foofu ñun dañu rus parce que ñun ñoo taxoon mu liggéey di liggéey di liggéey mu feebar xoolul feebar xoolul dara ndax bëgg bëgg bëggal fans yi di liggéey pour fans yi ba dee dem ñun ñu des fi war ko wan gannaaw waruñu ko wan gannaaw loolu dafa fekk day tax mu gën lu gore lu gën a gore voilà loolu moom parenthèse la boo xam ni fans yëpp laa koy wax nañ ko jéem a méditer ñu méditer xalaat fi bu baax a baax li ci des moo di ma gërëm euh, euh, ma gërëm ñëpp ñi nga xam ni si bi préparez le 16 janvier vraiment euh ragné ci waaw. Euh, donc Pablo, mi leen di koy que 16 janvier bi waaw diko ziaré bu baax ah, même Hélène Hélène RBK. wa Hélène manque ngi xajal légui xamna dégg day day xajal live. waaw kooku wa kooku jar na xam waaw kooku jar daañu xamante ak moom incha allah daañu fasante ak moom coloré ndax ndongo ku ko bëgg rek ñu bëgg la ndax ndongo ku ko bëgg ñu bëgg la ndongo ku ko bëgg ñu bëgg la waaw dañuy jokk il faut ñu jokkoo il faut ñu jokkoo loolu liggéey la bu rëy bu ñu war a am na liggéey bu rëy bu ñu yëpp dañu si war a ah? ma ne nga boole maam Cheikh bi waaw il faut que parce que li fi nekk léegi mooy maam Cheikh ñëw jàppale maam Cheikh toog di wax loo ndongoloo loo ndongoloo ndongoloo rek mu ndongoloo mën ñu ko jeexal ku topp dëgg gëstu ndongoloo doo ko mas jeexal jéem a boole ak leneen boole ko ak jàppale maam Cheikh liggéey bi mën a continuer waaye booy gëstu ndongoloo fi da fi nekk ba dee doo ko jeexal ndongoloo kenn mën ko jeexal ndongoloo géej la mënoo ko jeexal da nga naan damay tànk géej gi mu jeex da ngay dee ko fi doo defal sa gëstu si ndongoloo mais boole ko ak jàppale maam waaw loolu mooy dëgg waaye topp benn affaire boo xam ne yow fii ba ba ngay dee doo doo ko jeexal da ngay dee bàyyi ko fi boole ko ak loo xam ne au moins yow boo dee daa fi bàyyi dara mais yow da ngay dee bàyyi fi li nga xam ne yaa ngi ko toppoon bàyyi fi dara leneen loo xam ne aussi yow yaa fi bàyyi ëllëg ñu la koy xoole ni lii diw moo fi defoon ndongo daf bàyyi dara ba tey fii ba àdduna sukki dañ naan ndongoo fi defoon lii ñun nañu def dara loo xam ne daañu ne yow yaa fi defoon bëgg ndongo yaa fi yow mi dèjà bëgg ndongo yow dootoo génn si histoire histoire yow rek histoire retiendra comme ni sa neex waxee woon ba at lañu ci teg nga créé chaîne bi nga nekk nii muy muy Ndongo Lo nga nekk nii bëgg ndongo bi nga nekk nii 2007 nga koy ubbi. bëgg ndongo TV international. boobu international boobu boobu bëgg ndongo TV rek la woon. yaa ngi ko créé 2007 mm-hmm. maa ngi man maa ngi fekk histoire bi. 2007 nga ubbi chaîne YouTube du dëgg bëgg ndongo mu demee ba affaire bi mm-hmm. commencé law nga si yokk international bi. Ah? noonu la demee histoire bi mi man. donc yow yow dugg ni ndongo la si histoire yow noonu nga si histoire parce que yow lu tax nga dugg lu tax nga créé YouTube. parce que da si YouTube gis ay Youssou Ndour

donc yow l'histoire retiendra sa tour dugg na si histoire yàgg na yëguloo ko waaye ma yëgal naa la ko <laughs> waaw léegi damay gërëm bon avant avant may xajal sama sœur Hélène ma ma ma gërëm ñi nga xam ni bon d'abord ma ma préciser ni chaîne YouTube bi nga nekk ni chaîne bëgg ndongo TV international fans ndongo lu yëpp la fi nekkal fans ndongo lu àdduna yëpp la fi nekkal international la ñuy wax mais particulièrement nag ah ku kuy séddale bul fàtte sa bopp particulièrement Mame Cheikh moi, groupe VIP Mame Cheikh international groupe chaîne officiellement chaîne groupe VIP Mame Cheikh international Et VIP Mame Cheikh international mo jamono jamono ji la ku fofu jamono ji da nga tardé da nga tardé képp ku tollul tardé nga parce que deug bi deug bi moy ñew ah, ak Cheikh ak international

maam Cheikh ñoo ko njëkk a créé groupe VIP si Facebook. 2014. dëgg la 2014 la woon boobu am boobu 2013 la commencé way ñu ubbi ko chaîne bi 2000 euh, page Facebook VIP maam Cheikh. ñu ngi ko ubbi si Facebook 2014. WhatsApp ñëw ñu yóbbu ko WhatsApp. 2016 ñu yóbbu ko WhatsApp. donc yàgg na te avant loolu ñu ngi nekkoon si Nongolo Family si eh, si euh, Messenger ak yooyu depuis 2010 xaw ma lan yàgg na loolu du tey. donc mbir mi mais mais problème mooy àdduna buy dox da ngay dox ànd ak moom au début ñun dañu yaakaar ni ñun mën nañu xam nangu lool moo tax loolu moo ñu yàgg loolu moo ñu tardeel dañu yaakaar ni ñun mën nañu xam nangu lool mais ñun bu dem ba si biir xam nañ ni nangu lool mën nañu ko xam nangu lool mën xam dara rek umpale si lu bare mënoo xam lépp maa ngi lay dégg Oh, ah merci merci Pa Abdou sama frère sama xarit sama lépp ndeysaan Pa Abdou sama genn wala la ndeysaan waaw waaw wax wax mi ngi tooy na na ma kii que vraiment Pa Abdou moom <laughs> ndeysaan waaw waaw sama sama sama nit la sama nit la sama nit la Pa sama waay la waa léegi ma ma ma gërëm ñi nga xam ni ah

yaa ngi bu dee yàq live bi vas-y eggaleel eggaleel. ci def na ndawolo rek ci ndawolo dugg ci live waaw waaw léegi ma ma jëm ma ma jëm essayé rek waaw. waaw fan yii passé fan yii passé comme ni xamee rek. fan yii passé groupe VIP Mame Cheikh. amoon nañ fa programme yo xamné depuis le sept lañ ko tàmbali won do doon préparer le 16 janvier le 16 janvier bon ñun yag nañ ko organiser depuis 2014 man da na ñew mais ren mënuma ñew mais daan mais sama xalé lañ sama collègue lañ l'essentiel moy ñaan bu mu sam solo ma nek fa mu bañ fi nek ben la donc ñaan bi fo ma nek rek ñaan bi moom ñoo am solo donc euh, ñew télé gis la caméra gis la photo fi film ñu naan ki taxul ñu jog ñun dinañ ñaan rek mu jeex nogo ñaan la kese la soxla ay caméra soxlo télévision soxlo dara yalla mo tax ñu def def ko ngir yalla ñaan yalla mu nangu loolu moo am solo dese bi yëpp ay folklore la ndongo la soxlu folklore fu mu toll nekk ñaay ñaan la sox soxlu folklore folklore nañu ko wàññi borom folklore nañu bi dem si di armée di filmer dem di wane ni maa bëgg a ndongolo loolu taxul ñu wax bëgg a ndongolo loolu du loolu moom moo moo métti xol loolu euh, loolu taxul bëgg bëgg a ndongolo mooy lan mooy ñëw jàppale maam Cheikh di xamal waa kër ndongolo dara ñu bëgg ñu ndongolo bëggoon nga bëgg leen ñu ndongolo jàppoon nga jàppaleen leen ñu ndongolo soppoon nga sopp leen ay xaritam yu demb yi xaritam yu bëgg demb yi bëkkaat démb yi ak ay mbokkam ñi mu bëggoon ni nga bëgg leen loolu la la soxlo ak di ko ñaanal waaw këram nongu la ay rakam la gën a bëgg ay famille la gën a bëgg yow nga ne fakk fan nongu la nga ñëw ba Touba ziar def loolu neex romb kër nongu la dem sa yoon nga ne dem armée di filmé ko dem ma sax kër nongu la naan nongu la bëgg yow kay nongu la nga bëgg waaye bëggoo waa kër nongu la ko nongu la nga bëgg waaye bëggoo waa kër nongu la bëgg naa nen bi waaye bëgguma ganaar gi loolu mooy lan xanaa ëllëg loo beneen ganaar ñëw ba beneen nen ñëw bëggoo beneen nen ñëw beneen nen a ngi nii maam Cheikh mooy beneen nen bi mi ngi nii toog nen bi mi ngi nii

bala 15 chaque jour ñu invité kenn donc balaa may mën a monopoliser antenne bi parce que man moom sama yaram bu tàngee dootuma noppi mais nag euh, ndongolo moo ma ko jaral ndongolo moo ma def loolu waaw. donc euh, yàlla dogal waaw. léegi nag li damay gërëm ñi nga xam ne invité woon nañ leen si fan yi donc ki si jiitu woon le jeudi 7 janvier ñu ngi invité woon Thierno Diouf Magui Daba bi nga xam ne ndongolo woy na ko si si si dernier album bi euh, cassette bi dernier album bi àdduna si morceau xarit mi ngi siy woy xaritam ba woy si Thierno Diouf Magui Daba. donc euh, Thierno Diouf Magui Daba mo nekkoon suñu premier invité ci groupe VIP Mam Cheikh ñu koy gërëm di ko masawu si 16 janvier bi ak ñi may waaj lim ñëpp maa ngi di masawu di leen ziara ci 16 janvier dina ñaanal xolu muñ day wax rek ni wala aduna mom ni la da ngay bëgg dara waaye yalla gën la ko soxla rek mom mo fi nekk mais ñu continué ñaanal Ndongo rek donc euh, biñu ñu ci le 7 ñu dem ci le samedi 9 janvier 2021 ñu invité Mamadou Niang nga xamni dom la ci Mam Cheikh dom ci Ndongo nga xamni sen taw papa moko jur muy papa ñang donc moom Mamadou Niang lañu ñu invité woon deuxième jour bi ak Fatou Yarax mi nga xamni fu ndongoloo mas ci bir Dakar mu dem diko ko feccal tatafu ak yoyu donc Fatou Yaraax ndongoloo sax mako tudon tuddoon Fatou euh, le samedi 7 le samedi 9 janvier ñom ñaar lañu invité ndoo won dañu invité ki même mu pare ñu invité ki si des donc biñu ñu ci samedi bi dem ci dimanche le 10 janvier 2021 kan lañu invité won ni ñu fi invité won Abdou ndjay mu nek ami d'enfance su ndongoloo Abdou mom nak euh ñu ngi invité won dimanche mais invitation bi eggul won ñu mottali ko le lundi 11 ñu eggali invitation bi parce dafa dagon ñu euh, le 11 janvier lañ ko eggalee Abdou Ndiaye nag euh, nekkoon ami d'enfance nongolo ñu bokk ben koñ momu dëkk Pikine tali bu bees premier robinet nongolo Lo dëkk deuxième robinet ben mbéd mu dox sen diggante té mu papam nekk ku ñu xam muy Thierno Ndiaye pa Thier bi nekk TFM moo jur muy xarit nongolo donc euh, moom do doon suñu invité dimanche dimanche ak lundi yëpp mu nekkoon suñu invité ñukay koy gërëm di ko massa aussi le 16 janvier bi ñu ci lolu lundi ñu invité Khadim Diagne nga xamni mom ak Yves Niang ak ak nongolo

Euh, si journée bobu le mardi 12 janvier le mardi 12 janvier ñu invité ndeysaan sëriñ sëriñu sëriñu ndongoloo di xaritam sëñ Dame Diouf lambay lambay Lambaay bi mom lañu invité mardi le 12 janvier 2021 waaw sëñ Dame Diouf Lambaay nga xam mom groupe VIP moy groupe am depuis 2016 bi ko sosee ba légui mi ngi and ak ñun yenn saa nak nag xëy na dafay occupé moo tax ko dégg mais groupe bi moo mas nekk groupe am waaw bi ñu jógee si te maam mm-hmm. sëñ Dame Diouf Lambaay moom sëriñ sëriñu fans yépp la groupe yépp groupe am lañ waaye mom daf ci mm-hmm. tamu VIP ndax VIP mo tolok jamono waaw VIP maam Cheikh moo tolloog jamono. biñ jógee si mardi dem si mercredi. mercredi le 13 janvier 2021 ñu invité Assane ak Ousseynou Cheikh yàlla yi mooy ñu nekk si groupe jàmm Assane ak Ousseynou Assane Ba Ousseynou Ba Cheikhu yàlla yi ànd ak euh, xaritu ndongolo yi ndeysaan ñoom la invité woon euh, le mercredi 13 janvier si biir groupe VIP maam Cheikh international mu nekkoon émission bu neex a neex ñoom ñëpp ñu leen di masawu si le 16 janvier di leen euh, ndokkeel di leen di leen vraiment masawu bu baax a baax di leen ziara le jeudi alxamis 14 janvier 2021 ñu invité grand Malik Diouf nga avons Diouf Malik, nga avons mom la nongi lu naa na naan ko bayu nabunar Diouf malik mom lañu invité le jeudi 14 janvier 2021 ci bir groupe VIP mam Cheikh International diko ko bu baax ci nangu bi ak vraiment euh, waxtaan wi ñom ñop ñu leen di gërëm a ah, di leen masawu di leen ziara waaw ci 16 euh, janvier bi ñu tëjee ko vendredi le 15 janvier ñu ko que ak le grand le grand manager

Andak ak dal andak ak andak ànd ak yar deglu gani waxtan waxtaan ak ñoom waxtaan bu dal waaw fala jëm waaw fala jëm si ñom la jëm si maa ngi jëm sama kër legi dam non wax wax gani yi xam nga gan ñoo jitu gan dang kay ter ter teru teral ko ba pare doga ñu wax ak kër lay <laughs> nak suma joge ci gani nak ma ma gëreem sama wa kër wa groupe VIP mam Cheikh International diko tambalé ci si sëñ Dame Diouf Lambaye nga xamni mom moom mi ngi si biir groupe bi muy suñu sëriñ euh ah, taxi mam Cheikh ñang nga xamni mom mom lañuy jappalé muy rakk ndongolo donc euh, ñëw si le grand manager aussi mu nga xam ne moom mooy manager jamono ji ñu toll muy Yilick Faye muy manager maam Cheikh di ko gërëm gis nañ taxawaay bi ak euh, yow mi bëgg ndongo macha si taxawaay rafet na Modou Sylla taxawaayam rafet na euh, Fatou Diop Maroc taxawaayam rafet na mais temps yi dafa nekk foo xam ne réseau baaxul ah Fatouma soxna Nabou ndesaan Aram Faye Mbour ah ndeysaan lamin Sakho ah fan yi bu ma demee àll ba vraiment ma ma absenté si groupe bi vraiment gis naa ni ngeen taxawoo kër gi mu rafet. ah ñëpp ñëpp ñëpp a ah, su ma limee damay juum waaw war moon tax lim mais fa lekk que ma lim ñenn ah, mais ñëpp rek ku déggul turam rek xamal ni sama xel ak si yow groupe VIP A Z ñëpp maa leen di béggee ak ak ndongo Pape Sène eh Pape Sène Papino Papino ma fàtte yow mais su ma laalee Papino naa naa laal feneen ak feneen Abdou Dieng Fall ah Mor Mor Samb ah moom bu ma limee damay fàtte fàttewuma Abdou Touré borom yéegu waay Maroc Abdou Touré sama waay moom tey xanaa dugg moom daf naan dugg si laay bi Abdou Touré borom yéegu waay maa ngi lay ziar Abdou Touré sama xarit <laughs> sama rak mi ngi sama live waa Abdou Touré ziar naa la sama waaye sama xarit ak ak waa programme numéro huit programme numéro huit programme euh, euh, kii invité invité du jour Abdou Touré ko yor moom ak ñoom euh, moom ak ñoom ñoom bint bint Dieng ah ndeysaan ak nu mu tëddee kële bu naama siku saña ñoom ndeysaan gaa yëpp maa ngi ziar ak yet kële ndeysaan tur bi dana ñëw après waaw ah, tur yi ñooy xaw a rëcc. Ndeye Fatou. waaw loolu ah waaw Ndeye Fatou Ngom Touba fàttewum ko moom tamit taxawaay rafet na lool fan yi bokk na si ñu leen doon jàppale si liggéey bi macha allah donc euh, ma leen di kii bu baax a baax baax donc am na benn tur bu ma bu ma échappé moom moo ma réer nii turu kële Thiané Fall waaw Thiané Fall bëgg wax bu nangaloo euh, jigéenu di DJ Ouz ndeysaan moom tamit euh, liggéeyam rafet na lool si programme numéro 8 waa programme ak Rakitin ñoom ñëpp seen liggéey rafet na ak waa programme yi des yëpp le groupe VIP dañ dañ onze programme groupe VIP onze programme moo programme numéro un ba programme numéro onze ngi di vraiment ñu gudd VIP jëm kanam ñun ñu di wax rek groupe nañ solo bureau bureau fans bureau bureau fans club bi maa ngi leen adjoint Cheikh Fall maa ngi secrétaire général bi Fatou Maroc ah, ak adjoint Modou

ah fi nekk ak kan encore ak ak ak waaw ak Moussa bu Ndongolo borom montage bi yéen fa nekkaale yéen ñëpp maa ngi ziar ziar euh, trésorier yi Pape Abdou Niang ak Yénik Faye ziar conseiller yi Mame Cheikh Niang Mamadou Niang euh, Oumy Diagne sama sama doom baay faat Yaraax ñoom ñëpp maa ngi di bëggee di ziar ñëpp di ñaal ñëpp jàmm mm-hmm. waaw léegi yaakaar naa damay damay damay tàggatoo rek parce que am na ñu bëgg a dugg su ma ko toppee du ma dama am àll su ma ah. RDK Pikine xale Pikine xale Pikine. waa Hélène RDK Pikine Hélène ah, maa ngi lay ziar Hélène maa ngi lay ziar après daañu déggante maa ngi lay ziar après bëgg na ma ma jox sa contact daañu échanger incha allah nous sommes vraiment ravis waaye vraiment ravis je suis au courant de votre travail c'est c'est formidable ah formidable nous sommes très heureux vraiment félicitations pour ce beau travail que vous faites merci à bah, bientôt incha allah oui. Mm-hmm. ma lay xamal ma lay xamal rédivision bi rédivision bi. ma ne après rédivision bi bëgg na bëgg na si YouTube bi. si YouTube bi waaw YouTube bi kon képp ku bëgg a seetaan émission bi rek <clears throat> na nga dem si YouTube bi bu la neexee euh, bëgg a nangu TV international di nga ko fa fekk incha allah bu émission bi jeexee rek dañ ko lancé foofu. loolu la de. Hélène moo nekk noonu moo maa ngi dem. waaw ziar naa la Hélène ziar naa la kontaan nañu sa liggéey de naa ko rafet na lool. rafet na loolu il faut que ñu jokkoo daañu jokkoo daañu jokkoo daañu jokkoo incha allah dana baax ah vraiment kontaan nañu amuñu sa fay parce que Ndongo Lo képp ku bëgg a Ndongo Lo rek bëgg nañ la te yow ni nga koy defee noonu lañ ko bëggee da ngay ñëw nag da nga ñëw si groupe bi nag nga nga gën a xam mission bi lan la fan lañ jëm parce que yamun rek si bëgg naa Ndongo Lo damay def promotion Ndongo Lo Ndongo Lo promotion am àdduna yëpp xam nañ ko léegi léegi dafa am leneen lu des mooy li bë li Ndongo Lo bëggoon eggale ñun ñu ko war a eggale ñun ñooy dund Ndongo Lo nekkatu fi ñun ñoo fi des ñu noo taxaw fi Ndongo taxaw def li Ndongo Lo waroon def bu fi nekkee mooy jàppale maam Cheikh te lool la ñuy woo ñëpp incha allah. jaajëf jaajëf Baye Diagne Naar ok jaajëf Mauritanie. mu nekkoon diwaanu diwaanu ndeysaan Mounia doon oote waa xam naa nag Baye Diagne Naar bu daanee dama dem jërëjëf rek LNRBK Pikine waaw gaynde Pikine googu soo pare nag dem Sidi ji tamit Sidi Faye mais naa jël Hélène RBK Pikine parce que booba léegi muy incité di oote Hélène RBK Pikine bu ñëwee nañ waa gaynde Pikine gi maa ngi ziar delloo waa soxna rek rek nga baal ma arrêté na ko salam alaykum sama frère sama càmmi ñi maa ngi leen di nuyu di nuyu président mi dogu genn génn. jaañ naar waaw jaañ naa kontaan si sama ay frère parce que ñun ñoo bokk lepp wax deug yalla nongo nongo la euh comme nim ko waxee defe na nongo képp ko wax rek da nga nan yow la gënon jege. té nim ko wax ñu déggaat ñeneen ñuy wax ci nongo kon nak nongo nongo aduna bi yépp la vraiment. Euh, est-ce que mon naa xam est ce que mën naa xam foo doon woote nii fooy woote nii instant yaa ngi fan. maa ngi France waaw. yaa ngi France waaw barki laa gis ci net bi ngay def live di hommage Modou Lo di dafa génn mu mel laa gis ngay def ci. Facebook bi lu rafet di def live bu rafet lu nice daal di Ndongo Lo mm-hmm. mooy dem rek nga koy hommage waaw loolu nag ñun parce que Ndongo Lo yëpp ñu kontaan lu ci waay def rek ñun dañ koy rafetlu nekk say fans dañ lay bëggee parce que man may may jàng ba tey ak bi ma duggee ba tey maa ngi live maa ngi ci youtube bi depuis en 2007 booba léegi 14 ans la ndeysaan macha allah mais man nag sama xaar dama ci wax ci mbiru Ndongo Lo rek a teewal Ndongo Lo. waaw waaw waaw ah, loolu ñu koy rafetlu. bisimilah mën nga développé. loolu ñu koy rafetlu bu baax ndaxte Ndongo ku ko bëgg rek bëgg nañ la Ndongo defe naa eh, li ñuy wax rek du sax waa Pikine rek waaye Ndongo àdduna bi yëpp la. waaw ndeysaan mu mel ne leen génnaat na leen génnaat na waaw xaar ma jëli ko rek mu wax tamit commencé am bi waaw après boo duggee rek vite fait mën ngaa dugg rek. waaw dafay daw dafay daw ñoo ngi egsiwaat nañu ci live bi xam naa damay développé damay wax parce que gis naa ni dañu am problème mu communication réseau bi. waaw développé mën ngaa développé rek. waaw di la di la di la Euh, remercier bu baax ci invitation bi de la encourager bu baax te ngay bind comme ni dañu nek ci live bi euh, occasion la pour nga bind chaîne bi ñi nga xam ne dañuy rejoindre ci live bi ñu mëna xam euh, chaîne bëgg bi international bi alors li président wax euh, mom lay waxat rek nongo ku ko bëgg di nga bëgg lépp lu ko takk ah ndaxte comme ni mu ko waxee rek euh, bu munoo bëgg ginaar bañ ay nanam te defe naa bañ sax amu fi ndax bu ngeen seetee décision bi bi ma loolu dama ko relaté dama posé boobu débat par rapport ak maam Cheikh bi rakkam waaw ndeysaan Hélène nag li muy wax am solo trop li wax am solo trop waaye dafa daggaat xanaa ma jël jël ko rek parce que li wax daa am solo dafa am solo RBK Pikine benn Pikine gi problème bu réseau laa am démb moo tax dégg pour ma dugg si live sax dafa metti lu ma mësul dal waaye nag nongo nongo <laughs> nongo ay affaire am nii rek lay mën a demee ah Euh, démb dama ma posé débat bi par rapport ak maam Cheikh dégg ngeen li ci seexu yàlla wax dégg ngeen li si Jili Ñaaw wax euh, dégg ngeen li si Zof wax ñooñu ñoo nekkoon euh, ñi nga xam ne dañu jege woon ndongo muy staff bi muy ñi nga xam ne dañoo doonoon manager am ñi nga xam ne si orchestre lañ nekkoon kon nag maam Cheikh. maa ngi koy invité bu ma nee déglu live mu déglu ko parce que démb waroon na dugg sax si live bi ndax jotante naa waxtaan ak moom mais le 16 janvier moom ñëpp xam nañ ne dafay doon bés boo xam ne nii euh, jot bi dafay ñàkk ku ci nekk dañ lay soxla donc dinañ ñëwaat ak moom parce que bëgg nañ def promotion albumam bëgg nañ def euh, tasaare ko daal ci àdduna bi parce que moom it yàlla may euh, loo xam ne nii donc amoon na ko xëy na nag du waa ndongo ndongo kenn mënu koo comparer ci ci jaar-jaaram wax dëgg yàlla waaye di ko wax daal moom mu jege ñi nga xamante ne nekkoon nañu ak frère am du dara moom mooy xale et puis ñoom tamit bëgg nañ ko bu baax a baax a baax boo déggee li mu wax démb. Euh, nongolo nongolo buñ ci wax defe naa dinañ fi yàgg ci live bi te xam naa ne am na ñoo xam ne bëgg nañoo dugg ah bëgg nañoo dugg waaye ñun nongo euh, dañoo màggandoo ak moom. ñun nongo da mm-hmm. dañu ak mom ca mbapat ya ca ca ca sabar ya gaynde ndé mm-hmm. loolu li may wax ñu may dégg xam nañ ko lolu ay tout tank lañu won ak suñu ay sabar kon nak nongo boobu mm-hmm. defe naa ñi ko xam wul won mais lolu lañ ko doon ñaanal après am e, te mënuma tuddu nongo loo te duma tuddu Yves Niang parce que buñu né nongo bobu dañ Yves waaw ndeysaan Hélène li nga wax am solo mais boo duggee rek nga eggali boo duggee rek nga eggali boo duggee rek nga eggali Hélène waaw ma ñëwaat su ma nee su ma nee nongolo dama naan Yves Niang su ma nee Yves dama naan nongolo donc lépp benn la Yves Niang démb waroon na dugg ci émission bi waaye moom it dañ ko soxla woon ci chaîne télé dañuy comprendre mais dinañ defaat beneen émission bu yaatu boo xam ne nii ñoom Yves Niang ñoom Pape Diouf ñeneen ak ñeneen damay bañ a lim ñoom ñëpp dinañ ñëw dugg parce que Ndongo Lo nag ah Ndongo Lo def na fi loo xam ne nii comme niñ ko waxee géej la du ma sa jeex du ma sa jeex mu doon ay émission mm-hmm. ah, euh, mais nag li gën a am solo li ëpp importance mooy li président wax léegi bi muy génn mooy di ne eh, ay ñaan ay ñaan la ndongo gën a soxla wax dëgg yàlla fa mu nekk ak képp koo xam ne ni yaa ngay dem ziyaar foofu mu tëdd nga jaar seen kër eh, lu mu xat-xat-xat nga jaar fa du noonu message boobu aussi dafa doon lu daw yaram day saan sànq xol yëpp a tooy mais tey jii dama naan bu ñuy wax si ndongo dëgg la metti na waaye nañu dëgër lu ñu oh, am solo trop réseau bii daw rek RBK Pikine li ngay na solo trop trop ma jëli ma ñëwaat ma démb dégg a yi daal waaw dégg nañu nonga seen nonga seen mu nekkoon tamit xaritu nongolo bu déggee ci way bi mu way xarit woy na ko njàmbe tamit dugg na démb njàmbe tamit nekkoon ci nga xamante ne nii morceau boobu nongolo way na ko man li ma ci gën a jàngat bi ma ci gën a am mooy ak li Zof wax démb ak ñeneen ak ñeneen ndongo dafa nekkoon nit boo xam ne c'était un rassembleur rassembleur maanaam mooy ki nga xam ne dafay boole ñëpp donc ci yooyu tànk buñ ci toppee rek tey jii dina gën a neex te defe naa ñu ngi ci sax wax dëgg yàlla euh, xëy na nag léegi réseaux sociaux yi muy Facebook daf ñu ko gën a yombalal ku nekk war a mën a wax li nekk ci yow waaye ndongo euh, boo déggee li mu woy woy bi ay valeur lay woy mooy nit ki am jom gëm boppam am fulla am fayda bu ngeen déggee marchand ambulant maanaam bu kenn xeeb kenn rb rb rb ñëwal rb eggalil waa Sidi Faye Sidi Faye Japon maa ngi ñëw ci walaay tëjee maa ngi ñëw jël la mais xaaral ma jëlee rb mi rb ñëwal eggali mu woy marchand lan mooy ñu war a liggéey dëkk bi ñu seet euh, ñu bàyyi suñu xel ci néew ji doole yi gis nga nongo dafa nekkoon koo xam ne moom saan néew ji doole yi ñooñu la gënoon sax gën a jege keneen euh, boo déggee nongo way na ko nee na ba mu leen di woy yaakaarul dërëm ci ñoom te wax na ko ci biir moxsom dama leen di woyu ma leen ngir alal woyu ma leen ngir àdduna mee dama leen di woy ngir seen jëmm ji nit noonu nga war a bëggee nit da bëgg nit te yàlla tax bëggal nit te bu ci séntu dara lu am solo la démb wax nañu Alpha Diaby wax nañu Papa Diaby ku dëkk Pikine ku dëkk Daaru ku dëkk site ku dëkk Ginnaaw Raay war nga xam kuy Alpha Diaby war nga xam kuy Papa Diaby war nga xam kuy moom ah ñooñu saan dafa fekk dañoo bon bon ñoo nekkoon ñoo nekkoon ñoo nekkoon ah voilà ay ah, ñoom Alpha Alpha ah, man nag Papa Diaby moom sama xarit la waaye Alpha Diaby sama papa la kooku sama xaritu waa ndeysaan Hélène RBK Pikine ma ñëw jële jële li nga wax daa am solo ma jële jële rek nga tëj ndeysaan ma jële jëla après nga tëj nga tëj waaw waaw waaw di di nuy nuyu Alpha Diaby Papa Diaby ah <laughs> suñu ay xarit lañu ñooñu <laughs> suñu ay xarit lañu te du ñàkk dina dinañ ñëw te di lancer un message du jàppale it Papa Dia bi ci association boobu mooy bëgg yaay loolu dinañ ci ñëwaat bu baax a baax a baax invité leen ñu jàppale. non maa ngi biir maa ngi ci biir. voilà. dafa la yow rek. waaw waaw numéro bi am na ku ma doon jokkoo ak est-ce que du yow ci. non garaaw après mun naa la jox sama numéro 77. alors xaaral ma xool ba am naa lu ma bi waaw waxal 77. 421. waaw. 39. waaw. 74 74 d'accord. yow après WhatsApp ma rek boo daanalee wala boo paree live rek envoyé par WhatsApp message. WhatsApp ñu amul benn problème. yow même même boo dee boo dee live sax nga dug dugg sa live ñu partagé ay mbiru Lo. waaw RBK waaw RBK di di présenté wu nag xam naa comme euh, réseau bi dafay dagg dafay dagg mais. Euh, waaw jël nga numéro bi. jël naa numéro bi su ma dinaa la envoyé. waaw envoyé ba WhatsApp rek WhatsApp. waaw voilà donc beneen yoon xam naa bu vidéo bi jàll ñu def émission. waaw ñu jox léegi di mbaa ngeen sa programme après ñu partage mbiru Ndongo Lo ak mbiru Pikine ak association moom muy association bëgg yaay. waaw bëgg yaay waaw. association bëgg yaay maa ngi ci biir yaa ngi ci biir waaw dinaa def émission Papa Diaby ak Alpha Diaby yëpp dinañ dugg ah, ay xarit lañu man live laa liveur depuis kuy live depuis ba tey xam loolu boo ko léegi xew léegi waaw waaw live daa xew ku ne jóg ba may tijji chaîne YouTube boobu 2007 la ba waa léegi 14 ans fukki at ak ñeent xam nga lu yàgg dëgg la loolu yàgg na te dinañ la di waaw ndeysaan mu nekkoon tamit ndeysaan RBK Pikine gaynde Pikine googu ma wax tamit ndeysaan am nañu nekk ci online bi di oote rek xam naa ma ñu jël leen RBK Pikine waa xaar ma jël la après nga affaire dagg dafa war a duggaat parce que émission bi xam naa si kanam a kanam lay def suñu jëfandoo émission mais xaar ma jële ji RBK nga daaneel ndeysaan xam naa euh, moom euh, problème au réseau là am problème au réseau nak li ñu war wax bari na li ñu war wax ndeysaan xajul sax ci ñoom ben émission ñaari émission ñetti émission yàgg bi ba ngay def live yag na machallah donc dina dañ koy partager et puis partage bobu aussi bu ngeen di def live ngeen wax ko ñu bëri xamuñu sensu partage bi dama koy wax mais gars yi duñ ko def dama naan partager len partager len partager len ba ca biir pale ba mais gars yi duñ ko def dañuy seetaan rek mais duñ partager partage bi nag moo ëpp. dafa am solo dafa am solo mooy tax keneen ak keneen mën a xool. mooy tax moo mu mu yaatu mooy tax mu yaatu ba ku ci nekk nga bëgg sa message jàll mu jàll fa. donc de leen di partage vidéo yi partage yi wax dëgg yàlla ñu dara mais c'est-à-dire euh, dafay tax suñu kàddu àgg fa ñu bëgg mu àgg te wax bu euh, bu bu yaatu rek njëriñ feeñ du noonu donc. Mhm. ndeysaan. li wax daa am solo waaye leen boo duggee nga wax ci partage bi rek après ñu tëjee ko nag ma dem jëlee ci Sidi Faye. voilà euh, waaw xam naa moom. Euh, <laughs> damay damay damay xam après parce que connexion bi dafa. après ñu ñu ñu voilà man dama émission xam euh, Facebook bu heures rek émission bi donc aw ma sax wax remercier qui di Djiliñan kii di Zof kii di euh, waaw Enoch Assane Baye Demba Baye Demba tamit nekkoon ci orchestre wi ak euh, Madior Dia mi mhm. nga xam ne ñoo àndoon di def émission bi ak Nongo Sène donc ñi ma war a gërëm sax bëri na waaye du xaj fii dañ koy euh, dagg mais dinañ ñëwaat ci non gërëmal gërëmal <laughs> gërëmal ñëpp ngi lay seetaan gërëmal ñëpp ngi lay seetaan ñëpp ngi lay seetaan gërëmal di di di sant di gërëm waa cité 1 cité 2 cité 3 waa ginnaaw raay waa daaru waa Sénégal waa àdduna yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm saa yu may def émission ñu teew di ko partager partage yooyu ne dama si insister dama bëgg ngeen waa kon gars yi ndeysaan yéen a ko déggandoo ndeysaan nekk ak problème réseau bi la waa ndeysaan mais wax am na solo trop li mu doon wax am na solo trop li wax am na solo trop li mu mooy partager rek maanaam boo dee seetaan da ngay dem fu ñuy wax partage nga partagé ko keneen xool keneen xool souvent ma di ko wax souvent ma naan partagé leen partagé leen ba sa biir pale ma ndeysaan partagé leen rek xam naa nag damay dem jële ji rek euh, Sidi Faye parce que Sidi yàgg na ci online bi te moom tamit ndeysaan da doon développé par affaire rek xaar ma jële Sidi Faye Sidi Faye xaar ma jële ji waa jiri ñaa nag moom moom loolu jiri ñaa soxna may man dara na may yeewa dëgg ku ci am sa waay waaw partage rek partage partage partage partage baje fi pare budul dara ma keeli kunu lo ko tay may ma tamay jël ko jàmbaar kon yow yaa ngi ci ligne bi ba léegi <laughs> jàmbaar nga de waaw noonu la noonu la noonu la noonu la noonu la comprendre naa bu baax a baax ñu ngi femme boobu dama mi ngi wax lu am solo ak waa ji waa ji waa ji doon waxtaan ak yow sànq ñi ngi wax lu am solo Cheikh Diagne Naar ñi ngi wax lu am solo ñi ngi rafetlu seen kàddu bu baax a baax a baax a baax ndax nit ki soo ko bëggee da ngay bëggale ay famem dëgg la comprendre nga te moy di mo la sank xam nga nee la euh li jambour mëna wax ci Ndongo Lo ñun ñu bokkal tax ñu ci xoos lu bari. dëgg la comprendre nga parce que lu am solo so koy déglu da ngay xol lan moy njariñ da nga diko ko to so xolé waji fim doon sank xol la doon deug la Cheikh Diagne la. waaw lim ni ndongolo dégg nañu lu ne c'est vrai loolu deug la mais loolu jaar-jaaru artiste la artiste bi mom so so so nee artiste la rek par force da nga dégg li ak li ak li dadi yow yaay gëm sa yoon rek ba égalé sa mission bop mom nag dafa gëmone bopam nak topul won wax ji quoi parce que wax ji amul sens parce que Sénégal so défé ñu wax so défu ñu wax kon amul njariñ li gëna am solo moy jëf. bu paree ñu ngi kontaan ci question yi nga xam ne moom la fan bi génne ak seex jaaj moom noonu quoi yow tamit comme que am na ñeneen ñu bëgg a dugg ci ligne bi donc du ñu jël sa temps. non yow demal demal. xam nga du ñu jël sa temps lu bari quoi xam nga looloo tax quoi mais ñi ngi rafetlu émission bu baax a baax ba pare ñi ngi ñaan yàlla tamit maam Cheikh ci yoon bi mu nekk. ak. waaw maam sax dugg xam nga ak Matar Mbengue non woon jotu ma ko woon kii yàlla defal leen seen parcours tamit ñu marqué ci lu kawe seen njort te ku ci war a ñëw jàpp rek nañ ci jàpp muy man di keneen di keneen keneen ñoo ci yam quoi ndax mbooloo mooy doole te nit kenn. Halo. dëgg la dëgg la xaasi waaw ndeysaan Hélène waa Hélène RBK pikin, ngeen ne Pikine gi waaw la non la Wa li wax tamit amna solo parce que da nga bind ni il faut adhérer dans des groupes Facebook pour partager des lives. Wa deug la man groupe bi mo bok sax machallah ay groupe ci la ñu mel ay groupe wanter ñoy ñooñu siiw nañ quoi mais yow tamit noonu la yow ñàkk ñaan na te tamit sama mbokk waa Pikine nga man moom macha allah macha allah maa ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Ndiago Roy màggee saxaaf waaw ñëw nag Ndakaaru Njaay waaye man dama naan sax aw ma Pikine dara parce que su ma demee bay tiituroo Pikine tamit waa Pikine di ma tiituroo moo tax ba na man mun naa ne léegi moom ku ko bëgg ko bañ waa Pikine la par la force xëy na dëkkuma Pikine aw ma Pikine dara mais ndongoloo moo tax ndeysaan Pikine teg ma fenn fi moo tax ñun ñëpp waaw yaa ma gën a xam ay waa Pikine lañu parce que Pikine moom bu ñu ba teg fenn bi rek ndóomoloo mooy export de tout Pikine ba ñëpp bëgg Pikine bu ko jóg tey nii waa Pikine la tax na yow da nga nekk waaw ah Abdou Thiat daa mel ne mi ngi woote da nga nekk ndeysaan ku ñàkk ñaan daal moo tax yow daañu partage lu bëri incha allah def say live maa ngi ci biir dinaa dugg partager la maa ngi ci biir yow tamit ma def sama live yaa ngi ci biir di teewlu oote nga kàddu nga sànni am solo démb ndeysaan mi nekkee Pikine di wàccee kaamil macha allah macha allah gis naa la ngay def sa émission live en direct loolu nekk lu am solo nga xam nit ñëpp a ko seetaan nag waaw sa émission live bi nga def démb ñëpp a ko seetaan waaw soxna Hélène RBK Pikine ngay def Pikine Pa Abdou Terre rek mi ngi chargé wu xam naa léegi mu ñëw bu fekkee fi nga nekk am na réseau xam na léegi mu ñëw mu mel ne tamit Pa Abdou Thiat le petit frère de Ndongo Lo moo nekk ci online bi mooy oote nii waaw su ñëwee rek ma jël ko waaw moom moom xam naa macha allah moom laa ñëw tëjee sax Pape Abdou Thiam lay ñëw tëjee waaw Pape Abdou teel rek ñu ngi chargé wu bu essayé rek ma jël la ñu ngi chargé wu xam naa réseau bi kii ne ñu ngi chargé wu teel noon rek dina ñëw waaw teel noonu dina ñëw ñu ngi chargé wu ñu ngi chargé wu ma jël la xam naa ma balaa rek waaw mu mel ne Pape Abdou rëcc na waaye mu dem jëriñoot ko. waaw Pape Abdou Thiam tamit ma lay wax tamit mën ngaa ñëwaat rek Pape Abdou Thiam boo ñëwee rek ma jël waaw son bi nag pour wax la ndongolo ndeysaan macha allah performance am gis nga son bi ndeysaan mu wooyee jiiri ñaar jiili ñëwal ñu dem fu ñu jëm Atlanta lii du lu ñu répété du dara ndeysaan jiiri ñaar moo marié après marié bi ndeysaan ñuy joué tropique ndeysaan ndongolo ñu rek improvisé avec waaw ko mu nekk lu mu sentir moom tamit jiri ñaa nekk naan anam Ndongo nekk manager de Ndongo Lo mu nekk am solo mais pas Abdou après ñëwaatee mu jël la boo ñëwaatee rek boo wootewaatee mu jël la waaw di wax tamit gars yi ñu nekk online muy Cheikh Diagne naa rek soxna Hélène ndeysaan nee na wax ji am na solo wax dëgg la seen yow mais nag partage jirim yaa jooy waaye yaa jooy ñëw bi doole yaa ngi jooy fay tiile ku la defal lu baax soo ko waxul buy lim say noon na la ca boole dem nañ fi maag lu na la defi tiiw toogul fama waaw ndeysaan jiriña yaa moom lii ku xam ne xam si Jill Niandene tey waroon naa def ak moom live en direct ci Facebook bi waaw invité ko mais ndeysaan dama xaw a ci ay xaw jàpp nga xam na ñun moom macha allah yaakaar nañu dara à doon rek parce que ñun suñu live en direct chaque dimanche dañuy def live en direct ci ay mbiru Ndongo def ay soow Ndongo Lo waxtaanee ko xam naa tamit suñu live ak jëriñam nañ ko programme yeneen dimanche yi ñëw rek waaw ñu bëgg ñëpp ab ndaw la bàyyiwuñ kenn Hélène RBK Pikine borom Paris la France ma lay ziar di ziar ak ndaw la ba ñëpp ak képp ku bëgg Ndongo Lo rek waaw di ziar rek l'ambassadeur Ndongo Lo Cheikh Diagne Naar l'ambassadeur Ndongo Lo deux fois rendu ndeysaan message am je pense que am na solo waaw di wax ne tey nag la woon 17 bu nga xam ne dem moom mun maa def live mun maa def dara parce que dem moom mu woon Pikine ji wàccee kaamil def naa sax live pour ñu fa mbooloo ba nekk woon ak lépp ak ñu chaîne YouTube Togo Dogo TV international xam naa incha allah tamit gàttoon euh, yàlla rek après bu ñu live ñu ba pare ba daaneel ku dem ci YouTube bi di bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo waaw Pape bi ñëwaat na bu ñëwee njëriñu. ba Abdou Thiat ñëwal waaw ba Abdou boo ñëwee rek ma jël la waaw du caat bu <coughs> ñëwee ma jël ko waaw wala fi nga nekkoon nga xamal déplacé wu déplacé wu tuuti nga xool da ngay déplacé wu tuuti rek dina ñëw réseau bi kii quoi da bu ñëwee ma jël bu egsee rek ma jël ko Paa Abdou Thiat waa ndeysaan o oh, mu mel Paa Abdou daw na mais Paa Abdou ma lay wax dama bëgg rek ndeysaan boo egsee rek ma jël la tëjee si yow mais ba tey tamit may lancé appel di la wax tamit bu fekkee yaa ngi ci online bi yaa may dégg soo ma woowee ci 77 421 39 74 waaw en direct naa la jël foofu cent 77 421 39 74 ma jël la en direct ci kaw a kaw wala léegi duggaatal rek defal demande bi rek nga duggaat xam naa fi nga nekk réseau bi xaw daw réseau bi xaw a kii mais duggaatal rek ma jël la duggaatal rek léegi mu mel tamit suñu live instant bi dañuy jeexal ni mais nag ba Abdoulaye xaarandi su ñëwee rek ma jël ko Paa Abdoulaye Xaar mi su ñëwee ma jël ko Paa Abdoulaye Xaar mi bu ma jël ko Paa Abdoulaye Xaar bu ñëwee ma jël ko Abdou lay xaar bu rek ma ko mu online rek rek ma ñëw 呀啦啦。 lalala kuma gis ku la yéena ma du bu ñëwee ma jël ko Pape du laay xaaral waaw Pape Abdou bu ñëwee ma jël ko ma tëj sama émission nga holy and lovable. i am in love ya. Sidi fay, yai ami falmu yai je, wakti lai, ki ma gis ku na na ma nga may wax bul gis gisee bu ko gisee naa ko def naa bu daago bu na ay na bu muy na booy may Sidi Faye kii mooy borom sa ma ngi la mel nag sàr ma kenn Deve immaginazione di Giovanna. Puja gol. Deve immaginazione Giovanna che va la taglia. Vuoi neghi? Lolo del Messico nati. Nasce ai gnai, scelta. Mueta nel bambam, taglia. La massa del Giovanna. Mueta nel bambam. Lolo. Lolo sire. Mueta nel bambam. Thank you. déggal déglu leen musicien bu jàmm Thank you. Omas, no, no, no, guátele, siéntele. Omas, no, no, no. Senta-te já, que chega que eu não motive. Traga minha dignidade. Meu ando de cuidar, Carlos, que eu tô cantando de tchau. Dei-me maytama te déglu ma ngi xalaate mooy tànnal boppam bëgg waaw gars yi ndeysaan dañuy jéem rek man bëgg ndongo mënu woy de mënu ma woy xawma dara dara dara dara tus mais comme nag instant bi ñu ngi suñu cëppaandoo émission te instant bii nii dañuy ñëw jeexal nii parce que macha allah allah Pa Abdou Thiat laa doon xaaral xam naa mi ngi ci online bi di oote mais boobu ba tey duggagul xam naa bu dikkee ma jël ko wala tamit bu fekkee dafa bëgg lu gën a jàppandi rek mën na ma oo ci 77 421 39 74 bu ma ci woowee rek dinaa ko jël comprendre nga waaye nag dama bëgg nag ni ñu war a jeexalee émission bi nii damaa bëgg ñu def live en direct maanaam morso Ndongo Lo ci lay toppaat nii rek après ñu jeexal émission bi nag ba beneen live tey nag nekkoon seen émission hommage à ma ciy rendre hommage Ndongo Lo fii ci chaîne YouTube Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement dem Ndongo Lo muy nuyu nag sama mbokku njaamoon njaam yëpp waa Saxaaf waa Njogoroy waa Louga ñëpp tout di wax ne xamaa Alassane mi suñu cëppaandaw émission rek dañuy ñëw jeexal nii ñëw jeexal ñëw rek xaw a fàttaliku live saxanam sax après jeexal ba beneen dimanche incha allah dañuy ñëw parce que dimanche rek hmm, am.

waaw xam naa nag sama mbokk yi téléspectateurs yi xam naa nag fii laay ñëw jeexale rek ci son bi laay jeexale ci son bi laay jeexale après nag yéen ñëpp na ngeen dem bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement yéen ñëpp na ngeen dem foofu bu ngeen demee foofu nag ngeen am fa vidéo bi intégralité parce que vidéo bi su paree nii rek ma nga jëm bëgg Ndongo TV na ñëpp dem bëgg Ndongo TV international ñu na wu foofu seen chaîne YouTube bëgg Ndongo TV international na ñëpp dem na wu foofu kon maa ñëw rek jaaxle ci son bi nii kon gars yi jaajëf xaaral ñu teg son bi mu daw tuuti après ba ñëw nag Mama get ladies singing up there for the girl. No, no, no, no. He get up, got up, you see the girl. Oh, no, no, no, no, no. Right? no, no. suñu yaay iya, waaw soxna si waaw soxna si waa gis nga de naa la ziar fi yëpp yow moom amal jàmm mais nag fi jeexale rek dañuy tàggatoo tàggatoo tàggatoo Thank you. King of the kings, I got my plan. Oh, I Thank you.

waaw bu ngeen déggal nag ndeysaan mën ko bul son fii laay ñëw rek jeexale di wax ni alhamdulilah rabbil alamin wax tamit ni yéen a gise woon tamit ndeysaan seen émission commence à Ndongo Lo instant bii nag ñu ngi suñu cappaandaw émission seen émission commence à Ndongo fi jaaroon soxna Diagne waaw morceau bi nag maa ngi koy maye Ndeye Fatou Ngom Ndeye Fatou Ngom waa ji Cheikh Ndiaye Naar waaw morceau koy maye Ndeye Fatou Ngom ak Soxna Nabu ak Aram Faye waaw jigéenu VIP rek ñëpp ñoom Fatou Yara ñëpp ñu amal jàmm rek di wax ne à l'instant yi nag ñu suñu cëppandoo émission ci leen ñëw jeexale may gërëm baax a baax nag Cheikh Ndiaye Naar l'ambassadeur doomolo deux fois di ko bëggee bu baax a baax di bëggee Ababacar Mbaye Thiam di bëggee Mame Cheikh Mame Cheikh ndeysaan woote na léegi dugg si émission bi def ay témoignage yu am solo Pa Abdou Thiat jaar na fu ne ndeysaan bëgg a pour bëgg a intégré si live bi mais xam naa problème réseau rek réseau bi moo neexul ñu koy jaajëfal bu baax a baax di bëggee bu baax a baax Assane Ousseynou Cheikh yàlla yi di bëggee grand Yéli Thioune maa ngi koy bëggee parce que moom daf ñuy suivre Chérif bëgg na ci dëgg bay baax a baax noos jiiri mbay Fall. dëgg bu baax a baax a baax xarit Diagne bu baax ak noonu xarit Diagne. sëñ ci man mooy jëndal ma ay caméra yu jar plus de ay deux millions ak photographe ak numéro bu lépp pour ensemble bi ak projet comme ni ko Xaadim Diagne waxee démb rek man moom bàyyi naa la sama bopp bu ordinateur nag am naa ko mais loolu rek ma mën di couvrir chaîne bi gën a taxaw chaîne yi di bëgg na wuti benn sonal nag maa ngi ci oo naa benn paas tuddee paas bëggu ndongo staf bëggu a nekk si àll soo bëggee live rek mën ngaa dugg ci paas comprendre boo duggee ci bi nga def sa live comme ni may live soo paree ma daaneel rek dinaa def sa live bi def ko sama chaîne bi comprendre nga affaire yaa ngi noonu Cheikh Diagne naan moom dama ko bëgg a doon parce que moom mu ngi ci biir mbay jàmm mu ngi ci biir waaw chaîne bi moom seen chaîne la suñu chaîne la waaw kon nañ ci ànd rek liggéey online grâce à GR waaw yaa ngi fekk ñuy daaneel noonu sama chaîne man kese de seen chaîne la man damaa ubbi rek damaa rek yéen tamit yéen ñëw leen rek eggali waaw ñëw leen rek eggali ñu ànd rek ñu liggéeyal Ndongo Lo teewal Ndongo Lo teewal suñu artiste ba suñu artiste kenn du ko fàtte si àdduna waaw a ay œuvre gën a wax tamit encore une fois fan mais mais xam def nañ ay vidéo Ndongo Lo pour lu mujj a ñëw généra dernière génération bi ñëpp mën kaa seetaan jërëjëf ku si am tamit vidéo Ndongo man rek 77 421 39 74 tamit nga mën ko parce que yor trois séries Ndongo Lo mais série dañoo xoos ay live Ndongo Lo vidéo mais dañoo xoos loolu nag lancé naa ko ñëpp wax donc ñu changé importance de la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo di gërëm bu baax a baax nag suñu sëriñ sëriñ Lambaye Lambaye bi di waat eh. Amadou Diouf waa Cheikh Diagne Naar la famille de Ndongo Mouhamadou Niang Sidi Faye Charles Lamine ñëpp daal bàyyi woo kenn waaw classe Afia ñëpp wax ni kon gars yi jëg daje caaw caaw bàyyi bàyyi wax ne après rek na ñëpp dem rek bëgg ndongo TV impressement man faa siran naat émission bi intégral na ñëpp dem bëgg ndongo TV ñu abonné wu foofu émission bi fu mu paree rek dañ koy place foofu bëgg ndongo TV international wax nag waa àdduna waa Sénégal ñun ñëpp bàyyi xel maam Cheikh Niang dina ne singal bu yéeme rendre ci hommage ndongo rendre ci hommage ndongo waaw singal boobu nag clip disponible instant bii ñu ngi ko yóbbu ci chaîne télé yu bëri waaw na ko chaîne télé yu teg nag chaîne télé yu teg affaire bi jàll parce que lu yéeme la rek lu mu kon daal mbokk yi tey lii moo nekkoon seen émission rendre hommage Ndongo Lo di 16 ans déjà kon tey ñun nii la rek rendre rek hommage kon gars caaw caaw bye bye di am na mi ne ñu am faa jaar ba toog mag ne la jàngal yaay jàngal ndaw mi bu baax jaral barkaay asibur asibur asibur asibur asibur asibur barkaay dégg nga kon ñu ñëpp nañ àndandoo rek dem ca chaîne YouTube rek Bëgg Ndongo TV International rek man gaay ba ci kanam ba ci kanam ah jaajëf jaajëf jaajëf